sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alnabi almustafa alkarim seydina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi wa xulafaayi mbokki jullit yi ñuy seetaan ànd ak di ñu déglu ci gox yu fasantikoo yi ci àddina bi yépp di cinq continents yi ñu ngi leen di nuyu ci baat bi ñu yàlla boole mu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu gannaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci weer wu tedd wu màgg wi ñu nekk mu di muharram di atu jullit ñi di ñaan yàlla nii mu ñëwee fekk ñu fi yàlla na del si ndege ni déwén fekkaat ñu fi waaye yàlla na ñu fekkee wér ak wérle mucc ak muccle ak wërsëg yu yaatoo yaatoo yaatu bu mën a sàmm suñu diine ak suñu ngor yàlla may ñu mu del siwaat ay ati at fekkuñu fi at bu ñëw rek yàlla na dàq bi ñu wees nattu yi ci am ren yàlla bu mu am déwén te balaa déwén yàlla na fi yàlla génne nattu bi gëna a lëjal ñëpp donte nattu yi nag bare niñ waaye bi ci gën a siiw tey mooy bii ñuy wax coronavirus wala covid 19 waaye natt yi moom bari na xanaa bii rek lañ xam wala bii moo ñu lëjal kon nag ñu tàmbalee wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa samaraat wa bassiri wa bassiri saabiriin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ulaayika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahma wa ulaayika humul muhtaduun ndax ñàkk nañ fi ay bakkan bi ci mujj muy wëllëre wu baax dëkk ak ñun fii ci amookat di taalibe cheikh bu baax ma mën ko ko seedeel mu di alxaaji aliyun nduur fa tabaarakallaahu doon médecin la woon di ku baax ku bëgg wasifa ku bëgg wasifa ku bëgg wasifa si rawati wasifa suba teel bokk naa ci ñi ko daan bokk ak moom ci jàkk ji suñ jumaa ji lu mu yàkkamti yàkkamti liggéey dana wasifa door a dem ndeysaan dafa daan wax ne yow li ma li ma neex ci wasifa ak yow day gaaw bu dee gars yi nag moom dañ koy nekk di baaral fii te duñ mën a wasi duñ mën a xëy à temps mu ne ma waaye bu dee yow da toog ci malaan bi rek wasifa bi day gaaw te day neex ndeysaan loolu la ma daan tooñee ah moo génnaat dina démb muy alxaaji Aliyu Nduur di ku baax di pàppaay Aïcha Ngenar Nduur ba ca France fa tabaarakallaahu Aïcha Ngenar ak sama doom bii Kumba ñoo maase ñoo demandoor école primaire ba lycée ba amandoor seeni diplôme ku ne sëy tàqali la ak sa morom te tàqaliwu leen ndax ñoo ànd daaw rek dem màkk ñoom ñaar fa tabaarakallaahu ba léegi ñooy ànd kon nag ñu ngi koy jaale njaboot gi yëpp waaye ñu teg ko ci loxol Aïcha Ngenaru Nduur mook boroom këram alxaaji Malick Sàmba fa tabaarakallaahu ak mariyem Sàmba bu Koli Posto moom nga xam ne moo di euh, directeur de ressources humaines bu Coliposto moo ma woo démb sax ne ma Aïcha nee na mu ngi lay wax ne nga wax nga yëg ne papam faatu na léegi ca hôpital principal kon nag ñu ñaanal ko yàlla yal ko yàlla yërëm te jéggal ko yal na yàlla def àjjana muy wàccuwaayam yal ko yàlla yégal ci barsaxu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bii ñuy waxtaanee dëgg-dëgg nit ku baax la woon njoboot la woon te bëgg njoboot te ñemeñ njoboot nag waaw dafa mel ni alaaji Malay mii xam na ko waaw alaaji Malay taal bii bu cheikh al islam bu alaaji Ibrahim Niass Baye bu cheikh cheikh Ibrahim Sall bu sëñ Asan dem xam na ko bu baax wëllëreem la woon lool lool wëllëre ñëpp la woon nit ku baax la woon kon ñu ngi koy jaalewaat bu baax mbokki amookaat yëpp teg ko ci loxol imaam Mouhamad Lamine Diop ak alxaaji Jibril Bodian ak alxaaji Sàmba Xari Faal ñu jottali ñu ko waa jàkka ji yépp wa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin loolu nag moo ko àddina ñoo ànd ah, demal maa ngi ñëw la rek moom wàllam la jël ñun suñ wàll la ci des kenn ku ne saam woo woo xaar yaa koy tonnil sa bopp kenn du la ko tonnil maanaam yaa koy teggil sa bopp ku xamul saam moo di nar nar wa yàlla nar ci dee moom kenn ku ne yaa koy teggil sa bopp kenn du la ko teggil moom nag teggi na bosam dimb ñun nag suñu yos yal na yéexandi di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa di nag suñ kilifa diine yëpp ni ko faral di defee rek teg ko ci loxol suñu sëriñ suñu soppe suñu bàyyi suñu xarit cheikh seyd alxaaji carno muhammadul bashir ibnu muntaqa ibnu taha ibnu cheikh alxaaji omar di Cerno Bachiru Taal ca Louga mu jottali ñu ko mbooleem naataango xalif généraux am yëpp mooy gën a matale di nuyu mbooleem kilifa diine yi ci réew yi réew mi yëpp asatise yi ci réew mi euh, ñi nga xam ne ñooy waxal diine ci rajo yeeg télévision yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ko teg ci loxol imaam alxaaji imaam ak Guèye mu jottalil ñu ko ña ca des ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu ñu nekkandooral fii ci zawiya bi doonte bariwuñ ndax benn tey ñu ngi ci li ñuy tere moo di daje ñu ngi koy fàttaliwaat nit ñi dafa mel ni dañ xaw a bàyyee ndeku tuuti loxo yi waaye naagu baaxut wolof moo ne ku naagu daagu ku daagu ñu raw la nañu gën a jël matuwaay yi di takk masque yi bu ñuy génn raxasu bu ñu duggee ci kër yi di laal zel di wattandiku daje yi tey joxe distance yi ñu santaane te kër docteur di ko santaane yëpp ñu respecté ko ndax mooy tax yëf yi jeex bu jeexul it daf ñuy lëjal rek waaw daf ñuy lëjal rek daf ñuy lëjal kenn ku ne rek war na jël matuwaayu boppam jàpp ne moom ci boppam moo fi mën a jëlee feebar bi suñ ko defee rek mu jeex kenn ku nekk ci ñun bu gëmee ni man mii maa ko fiy jëlee rek mu jeex noo ko fiy jëlee mooy matuwaay yi nga xam ne ko docteur moom la ñu santaane yëpp nga respecté ko bul xaar sax ku la ko wax ndax sa njëriñ la rek waaw matuwaay yi kër docteur joxe suñu njëriñ la rek waaw amul kenn ku ci mucc boo ci mucc boo ci muccee sa mbokk du ca mucc kon nag lay tax ñëpp mucc na ko ñëpp def rek di ñaan yàlla yal na ko fi jëlee ci jàmm di ndokkeel bu baax alxaaji tafsir gay ak alxaaji Chérif ay dara ci tamxarit bi ñu génn ca 2STV mu di dimanche bi passé di Ashura ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ca ñaanal yàlla ak boroom télévision ba di alxaaji Ibrahima Ndiaye di alxaaji Ndiaye ak soxnaam Mariam Ndiaye ak technicien ya fa nekk ba ci directeur bu bees bile di fa tabaarakallahu doomu alxaaj nga xam ne moom la ñu teg yëf yi ci loxoom di ñaanal di ko ñaanal yàlla yàlla na ko ko yàlla sàmmal bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di abdul njaay ku baax la xaleel la waaye ku baax la ku woyof la ku yàlla dimbale la bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla jàppale waaw kañ yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla jàppale ndax eh, léggéey moom yombut <clears throat> waaye bu ñu amee confiance yow ba teg ko ci sa loxo rek am nga sens ndax confiance moo jiitu lépp kon Abdul ñu ngi koy souhaiter bon chance ci liñ teg ci loxoom ak sala mi nga xam ne moom it tabaarakallahu kenn mënu ko ca barab ba ak mbooleem techniciens yi ci 2STV yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba ca gardien ba ca bunt ba ndax ku fonk say nit nga war leen a fonk te dëgg-dëgg nag 2STV yi dañu fonk Chérif Mamine fonk Tafsir Abdourahman ñooñu nag ñoo ma séddoo ma séddoo leen ku leen fonk ma fonk la ku leen yëg ma yëg la ku leen ba ma bala ku leen jàpp ma jàpp la waaw loolu la yàlla dogal Chérif Mamine Tafsir Abdourahman Gaye Chérif Mamine Aydara Tafsir Abdourahman gay ku leen jàpp ma jàpp la ku leen bàyyi ma bàyyi la ku leen fonk ma fonk la ku leen fonkul ma ñàkk laa fonkat yi loolu la yàlla dogal ci sama diggante ak ñoom yal na yàlla guddal seen fan yal yàlla may leen wér ba lii ñuy def ci diine ji ak tariqa yi du tariqa tijaan rek yal na leen ko yàlla gën a mën loo teñ sax dàkk ci xolu jaami yàlla yi yal na ko yàlla def te yàlla bi ji teraanga jëme ko ci ñoom teg ko ci seeni loxo ñu di ko jëriñoo ila yawmil qiyaamati di nuyu waa Europe yépp nag bàyyi wuñ kenn fu waay mën a nekk ci Europe nag ñu ngi lay nuyu fu waay mën a nekk ci Amérique ñu ngi lay nuyu fu mën a nekk ca ñu ngi lay nuyu ak cinq continents yépp ba ca Israël démb rek am nañ barki démb am na ñu ma woo yi ñu nekk Israël ak ñu nekk ca Arabie Saoudia ba ca ambasadoru gam bi ba ca Arabie Saoudia euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm moom ak Malick Badiane doomu bàjjanam bile ñu ngi koy ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di wax ne ñu ngi nuyu Alaaji Malay Taal bii nga xam ne kilifa la ku baax la bu bu cheikh ibrahima sàll bu sëriñ xasan dem bu cheikh al islaam alaaji ibrahima ñas baay di ci profito di nuyuwaale caatu baay ñas bi nga xam ne ñëw na fi fan yele tabaarakallaahu mu ngi yóbbante ci ñun nuyoo teg ko ci loxo Abdou Aziz Diop bi mu jottali ñu ko sànq fa tabaarakallaahu ñu bég ci lool mu di Serigne Cheikh a ah, ñas di caatu cheikh al islaam alaaji ibrahima ñas baay ñu ngi koy nuyu di ko teg di ko yóbbante nuyoo ci xalifa bu baax bii nga xam ne moo di cheikh maahi ibrahima ñas di ku baax di boroom xam-xam di ku éloquent man dama ko fan waaw cheikh maahi dama ko yàgg a fan ndax simplicité am il est il est simple trop même trop simple waaw Cheikh Mahi nit ku baax la nit dama ko xam dama ko xam bu baax dama ko xam am na conférence bu ma daan def bi moom moo daan jiitu ci bëccëg bi man maa daan ñëw ci bëccëg bi moom mu ñëw ci guddi gi fa tabaarakallaahu su ma ñëwaan ci bëccëg bi ba dem moom guddi gi mooy ñëw def gàmmu gi kon man li may wax xam naa ko bu baax muy Cheikh Mahi bii di xalifa yal na yàlla yàggal ko ci xilaafa gi te mu mottali mébéti ay magam bi jaay Seydina ak way juróom wu tedd wa Cheikh al Islam Alaaji Ibrahim Niass Baye dëgg dëgg ku baax la Cheikh Mahi ku baax la ku baax la dama ko xam xam naa ko ku baax la Cheikh Mahi ah, alxalifa ku baax la ku baax la ku baax la de man xam naa ko de waaw ah, woyofam rek moo lay woon mbaaxam waaw ah, ku rek moo lay woon mbaaxam waaw kon nag ñu ngi koy teg ci caatu loxo caat mu jottali ñu ko mboolem njabootu Cheikh al Islam gi yëpp El Hadj Ibrahim Niass Baye. fa tabaarakallaahu di nuyu suñu technicien bi le tey moom Abdoul Aziz la tudd waaw ah, ndax sëñ Abdou du tardé tey moom kenn tardewul dañ doon déglu alxuraan ji ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ak di ko sant nag ci itte ji moo ko Abdou Aziz Diop ak Thierno Ndoye ak Omar Gueye di nuyu oustaz Sidi Ahmed Mbaye bu Chérif Ibrahima Aydara Atijaani di nuyu alxaaji maam Ndiaye Dabaax Mansour Gueye ak alxaaji mayib mayib bu Abdou Aziz ñu ngi koy nuyu mayib géey lu noonu kon ñu ngi nuyu nag mbokk yëpp nag di wax ne ñu ngi beral nuyoo nag koo xam ni mu nga ca France di xariti imaam alxaaji Malick Diop bu Thiès bu rakku alxaaji Idrissa Diop waaye tey mu nekk ca reen mook soxnaam astu fijoor dafa am ku yóbbante Malick ci ñun muy suñu soppe mu yóbbante alxaaji Malick ci ñun nuyoo ak ziyaar muy xale bu baax di Ousseynou Fall nekk ca Lannion waaye bokk ci ñi ngànk daayira ba ca Brest nga xam ne am na nañu yéene boo xam ne yéene ba moo di suñu demee France incha allahu tournée ya ñu fay def ñu boolewaale leen ca ren defal leen benn xadaratul juma su ca conférence ma ne am ñu teg ko ca loolu yëpp wax naa alxaaji malik Diop al imam mu waxtaan ci ak ñoom Adama Keita fa tabaarakallaahu ak uh, maas mi nga xam ne mooy président daayira ba alxaaji Masamba Fall ak fa tabaarakallaahu ahsanul xaalixiin suñu doom ju baax jële nga xam ne mu nga fa di ñu jàppale di alxaaji daaw góor njaay bu sëriñ Mor Njaay mu waxtaan ceeg ñoom ak Lamine Dieye ca France ak alxaaji Omar Ann moom mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira ba ba ci imaam Dikko imaam Mouhamad Dikko bokkul ak imaam Dikko bale ca Mali nag gis nga tur yee tombé moom it imaam Mouhamad Dikko la tudd di xaritu Abdou Aziz seen mos Abdou Aziz Thiam imam Abdou Aziz Thiam bii ñoo jàngandoor ñoom ñaar ca Fass Touré tabaarakallaahu ñoom ñaar ñoo jàngandoor ca Fass Touré mu nekk ca reen nekk imam ba waxoon naa ko fi waaw nekk ca reen nekk imam ba tabaarakallaahu di ku baax imam Mouhamad Dikko tabaarakallaahu yorit agence de voyage boo xam ne at bu jot day yóbbaate Makka. jële leen France yóbbu leen Makka di ko am itte xaleel la moroomu Abdoul Aziz Thiam la seen morom la yéen ñi waaye tabarkal la boo demee ba fekk ko fa di nga xam ne jàng rek am solo waaw di nga xam ne jàng rek a am solo waaw naar yaag égyptien yaag saoudien yaag ni ñu koy waxeeti eh, marocain yaag algérien yaag ñëpp mooy seen imam waaw loolu rek doy na sant yàlla te mu Pikine gii la juddoo màggee Pikine gii dem jàngee ji fasture génn dem waaye foo mën a dem boo jubee rek di nga bokk ca ñey jiitu waaye foo mën a dem boo dëngee rek di nga bokk ca ñey dem ca kaso ba waaw loolu bu la ci kenn na waaw foo mën a nekk boo jubee di nga bokk ca ñey jiitu waaye boo dëngee di nga bokk ca gëb la ngay dem ca kaso ga waaw kon wax dëgg yàlla ay xaleel yu jàmbaar lañ mu di Ousseynou Fall di xaritu nag alxaaji imaam Malick Diop kon ñu ngi koy sant di ko gërëm Ousseynou ci ma bi mu ñuy jox ak cofeel bi mu am ci ñun yal na ko ko yàlla fay a ah, nit nag bu la soppee sopp na la loo koy fayee la Cheikh alxaaji Abdou Aziz wax ne ki la yëg wala ki la ne bëgg naa la mu ne mënatoo ko fayee lu dul yëg maa la raw fayu ko nee na yëg rek yéeg yéeg rek kon nag Ousseynou Fall jërëjëf yaag mboolem ñi nga xam ne yéen a nekk ci daayira boobule ca Brest fa tabaarakallaahu di la sant di la gërëm teg ko ci loxo al imaam alxaaji Malick Diop kon mbokk yi di massawuwaat nag ay ay Aïcha Ngenor Adja Aïcha bu baax di ko jaale mbokkam mii ci kër gi nga xam ne mu ngi fi temps yëpp ñëw vacances mu di cheikh di kumba ñu ngi leen koy jaale alxaaji aliyu nduur fa tabaarakallaahu mu mel ni ñu dugg nag ci waxtaan wi wéy ci quatrième parti bi ñu toll tey ci mawlaaya wala mawlaana ma bañ ko individuelal bañ a ne mawlaana waaw képp ku ko sopp rek duggaale ci biir waaye su ma nee mawlaaya ci sama bopp rek laa koy yemale waaye Seydina Cheikh ñëpp la ëmb kon ñuy wéy ci waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko doon def première partie jàll na ak deuxième ak troisième tey ñu ngi dugg si ci incha allahu ci quatrième partie fas naa yéene nag su ko ma su ma ko yàlla maye la mayee ma yemale ko ci cinquième partie mu di samedi bii di ñëw suñu ko yàlla mayee ndax lépp xaju ci te buñ ko toppee tamit rek eh, lu jiwu wa jeexul daal jógu fa beneen yoon ñu continuer rek waaye essentiel yi laa bëgg ñu jël ko te xam ne tarixa du fortasu ñi ñu yàpp ñëpp foofu lañ ñu yabee ñi yàpp tarixa yëpp ñu ngi leen yabee ci nii rek tarixa du fortasu fortasu mooy dernier recours u tarixa waaw mooy boo defee la la sant lañ la sant ba noppi sañ ngaa jaaxaan nag di fottasu waaye feek defagoo liñ la sant fottasu teel na waaye ñun nag dañuy xëy rek di fottasu rek du noonu waaw moo tax ma bëgg a jël yi nga xam ne képp ku ci sax dàkk ku ne tiijaan nga nekk ko ku nekkul tiijaan it nga nekk ko ba ëllëg nag ñu xool fu ñu yemoon maam Njaay yaa ngi fi woon Mansour Gueye fu ñu yemoon Abdoul Aziz Diop waaw Abdoul Aziz Seck yéen techniciens yi fu ñu yemoon déedéet fi ma waxoon bene in uridu déedéet foofu passé naa ko yàgg na paase naa ko hmm? ah, waaw yéen ñi may seetaan yéen ñi ci internet yi aca yónnee leen fu ma yemoon ah, sëñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tijane moo koy faral di def ak sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñoom ñaar ñëpp dañ koy def sëñ Babacar Sy Mansour mos na ci yegg ci benn daayira ne leen su ma su nee ma ñëw fii ne leen fu ma yemoon waxu leen ko rek ñu xeddi baas yi dem te ma xam ne siiwuru leen presque <laughs> dégluwu leen bon waaw xalifa bi ku ñàkk caaxaan la sëñ Babacar Sy Mansour loolu moom ñëpp xam nañ ko ci moom ba tuddee nañ ko ñàkk caaxaan que waxtaan dafa war di nit ki di déglu fi ma yemoon nag dinaa leen may tey wax leen benn in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib am na fu ma yemoon ba wax loolu ci laa joxoon nag al oustaz euh, Alioune Badara Ndiaye ñu ngi koy nuyu au passage moom itam ñoo àndoon 2STV euh, dimanche bi passé tabaarakallaahu kon ñu ngi yemoon ci fi Cheikh Seydi Ahmad Tidiane hmm? waaw kañ maa ngi yemoon ci salaatu ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi la tax ma indi ko dama bëgg ñu xam awraadu tariqa bi baat bu nekk fu mu jógee ba ñi nga xam ne dañ ne tariqa du du sunna du sharia bidaa la même bu doon bidaa d'accord na même bu doon bidaa bidaa bu rafet la même bu doon bidaa bidaa bu rafet la rawati nag du bidaa tariqa sharia la ak sunna sharia sharia ak sunna nag eh, fan ca yam nga ca mën a yam kon ndax li tariqa bi santaane génnul sharia génnul sunna te bu ñëwee ci chartu tariqa bi di nga xam ndax tariqa bi dafa génn sharia wala dafa génn sunna te li tarixa bi santaane yépp mu ngi ci biir alxuraanul ci laa doon indi nag par benn istighfar mu ngi ci biir alxuraan walla déet waxoon naa ko lu ci topp salaatu ala nabi ci laa yemoon inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nekkul ci alxuraan lu ci topp laa ilaha illa allah kooku moom li mu ñëw ci alxuraan kenn xamul nu mu toll ma jël ci benn rek faalam annahu laa ilaha illa allahu wastaghfir li zanbika gis nga faalam annahu laa ilaha illa allahu wastaghfir li zanbika lu ko ci indi faalam xamal ne annahu lii mbir tey mbir laa ilaha déet benn buur bu yeyoo ñu jaamu ko jaamu ga di dëgg ñàkk gaa jaamu di lor ca moom ka ko ñàkk def ak ka koy def illallaahu ku dut yàlla noonu nga koy fire laa ilaha déet buur bu yeyoo jaamu dégg nga wax bi de mooy buur boo jaamu beneen bu dul moom perte nga moom rek a yeyoo jaamu moo tax noonu nga koy fire laa ilaha déet buur bu yeyoo jaamu te jaamu ga di dëgg ñàkk gaa jaamu di lor ca ka ko def ak ka ko ñàkk def du ci yàlla de ca ka ko def ak ki ko ñàkk a def illallahu ku dut buur yàlla mu ne fa boo ca jógee nag fastaxfir na nga jéggalu li zanbika ñeen sa bàkkaar yi beneen bi wa ida qiila lahum laa ilaha illa suñ borom ne am na ñoo xam ne boo leen nee waxal laa ilaha illa allah ñu rëy rëy nañ koo wax yal yàlla musal hmm? rëy yàlla ne am na ñoo xam ne boo leen nee wax leen laa ilaha illallah rëy na ñu wax laa ilaha illallah waaw kañ yonent bi sallallahu alayhi ne man mi yàlla yónni ak yonent yi ma jiitu woon waxuñu ñu waxuñu mukk ci kaw suuf lu gën laa ilaha illallah kon baati laa ilaha illallah amul dara lu ko gën a rëy bëgg nag mu sax ci yow ba nga nekk yow di laa ilaha illa allah al aarifuuna billaahi moo tax boo leen déggut rek dugal leen safara te fekk ñoom ñooy génn safara dugal la fa yow parce que ñàkk leen a dégg tax nit du mën a nekk yàlla te du nekk yàlla ba faw amul benn mbindeef bu mën a nekk yàlla te du nekk yàlla ba faw yàlla moom yàlla dong la moo di laa ilaha illa jeex na waaye nit day incarné yàlla ba faf seey ci biir yàlla boo seeyee ci biir yàlla yaay kan yaay moom mu di yow ifaadatika minka ilayka moom la Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani sultaanul awliyaa ba mu ca tolloo ne ana allahu may yàlla xaal bi wàcc gaa yi ne ko wax nga fi loo xam ne boo ko waxatee ñu dog sa bopp de da dugg ci kufru mu ne lu ma wax ñu ne ko danga toog ba mu yàgg nga ne may yàlla mu ne su ma ko waxatee jël leen jaasi dog sama bopp jox naa leen ordre may naa leen ci ndigal mu tolluwaat ci rek fekk am na fooy waxee rek am na ku mel ni Mansour Gueye koo xam ne testé rek la bëgg ndekete am na as ju mboq jaaseem rek di ko yo di ko yoru rek xam naa moom daf ko bëggoon a rey rek de ak di seet ndax li sëriñ bi di wax dëgg la ba mu tolloowaatee ca xaal ba moom Cheikh Abdul Qadir Jeylaani <laughs> ponkal la de ne ana allahu rek waa ji génnee jaasi ji rek cor bopp bi daggul mu cor daggut mu cor daggut ñetti yoon bopp bi daggul ci Abdul Xaadir ne ko looy def mu ne ko yaa waxoon ne boo tolloo ci xaal bi boo waxee ne may yàlla ñu dog sa bopp mu ne ko ah feeg maa ngi ci xaal bi mënoo dog sama bopp ndax seey naa ci jëmmi yàlla ji ci yàlla du dee mu ne ko feeg maa ngi ci xaal bi boo doon dog sama bopp junni yoon du dog ndax maa ngi ci biir yàlla seey naa ci moom te yàlla du dee huwa hayyun laa yamuutu moo sax ci dundam gi te du dee ba faw kañ kon baatu laa ilaha illa moo ñëw ci biir tariqa bi muy ñett waxoon naa la ne istixfaar ak salaatu ala nabi la njëkk a jox seydina cheikh 1200 du loolu laa la waxoon lañ ko ko joxoon mu koy sàqami ba 1214 muy 4 ñu door koo jox laa ilaha illa tegal ko ci indi wadifa ak xadaratul juma tegal ko ci waxoon naa la ci biir waxtaan wa bañ ko joxee jaw euh, euh, wadifa benn la woon mu dawal tuuti na an yonent bi saai sallam ne ko dolli ci beneen sa boroom nee na nga dolli ci beneen muy fukk ak ñaar mbokk internet yi may seetaan nag su ngeen jékkee-jékki mu am euh, interrompu ci yéen ngeen xam ne coupure courant la ngeen toog dama ko fa bëggoon a jiital sax ngeen toog te xam ne danañu taal groupe bi bu boobaa ba ba ñuy am groupe boo xam ne yalwaanu ma nag ñaanu ma it nag mën nañ koo ut léeg may wax ñu foog ne yalwaanu ma de ñaanu ma de ñun luñ fi soxla rek yàlla mën nañu ko jox yelwaanu ma kenn ñaanu ma kenn suñ mbir yëpp ci yàlla lañ ko teg yelwaanu ma kenn ñaanu ma kenn bu courant coupé daal ñu muñ tuuti ñu taal groupe bi ñu ngi defi pexe yoo xam ne bu courant coupé day alterner nga xam ne automatiquement rek du jar dem di taal groupe bi bu courant di coupé rek mu déclenché groupe bi déclenché boppam ñu ngi ci ay pexe yooyu waaw waaye ñaanuñu kenn de. ku ñu may nag ñu jël waaye ñaanu ñu de te ñu it nag waaw na leer na leer man fii li ma fi wax damay wax xaas xaas sa li wajhi laahil karim su ma demee ba mënatuma wax ngir yàlla ma fatu ji dem noppi waaw demee ba mënatuma wax ngir yàlla ma fatu ji dem noppalu te xam ne jéem télé jéem ba télé du gàcce ma fatu ji waaye feeg maa ngi wax nag damay wax ngir jëmmi yàlla sama wax fayekowu ma ci bor leblewuma ci it nag sama wax fayekuwuma ci bor te leblewuma ci waxuma ne damaa giijal de damay yelwaan koom ñëpp naanaam damay jóg di daanu dóor waar laay def comme ñépp waaye yelwaanu de du ma toog mukk di waxal yàlla di ci sànniwaale kàddu yoo xam ne dama ciy ut njëriñ lu jëm ci sama loxo duma ko def ndax xam naa njëriñ fa mu nekk ci loxol yàlla la ne li ci loxol nit ñi daf di njëriñ nit ma mën a jëriñ dara njëriñ ca loxo yàlla la ne xam naa ne foofa la ne buñ demee ba soxla ko xam nañu fu ñuy jaar ba jot ca ndax am nañu kilifa nag ci ko am kilifa xam nga fooy jaar dama bëgg rek mu leer ñun lu ñuy wax rek yàllaa tax ñu di ko man lu may wax yàlla tax ma di ko wax dama bëgg rek parce que dañuy jàmbat des fois bu kuppee ñoom dañuy xalaat ndax dafa coupé wala dañu amatul internet bu doy déedéet fii alxaaji jarga sow tabaarakallaahu mi nga xam ne moom la ñu tuddee zawiya bi ci bonne volonté yi la bokk defal nañu lu fii loo xam ne bu dee internet rek moom doyal nañ ci sëkk moom duñ ko ñàkkati waaw ñu ngi koy sant nag bu baax alxaaji Jarga Sow kon euh, bu courant bu bu kuppee rek xam leen ni courant moo coupé te ngeen toog ngeen muñ tuuti rek ñu branché groupe bi ñu continuer saa yu ko defee rek su may waxtaan rek mu coupé toog leen yéen ñi may seetaan ànd ak di déglu te xam ne dinañ ko relancer waat mu continuer incha allah loolu ngeen baal ma dama ko ci doon indi kon. Euh, laa ilaha illa allah moo ko ñetteel yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay wax awraat yi tarixa bi parce que ki toog di def tarixa bi di laazim wala di wazifa wala di xadara juma su xamoon li muy def du ci gaaw a jëriñu il faut nga xam li ngay def lan la nga gaaw a seqi jéego pour dem moo tax wax naa la istixfaar a jiitu gannaaw yéene ndax yonent bi moo wax ne innama al amalu bi niyaati wa innama li kulli mri ma nawaa mbir yépp a ngi aju ci yéene loo yéene rek loola nga cay am moo tax jëf mënula sotti te borom yéenewul bu dee njàpp bu dee julli bu dee cangaayal farata lu mën a doon fokk nga yéene pour am ko yàllaa la gën a xam li ngay def waaye dafa bëgg nga présent lu tax kuy liggéeyi budget pourtant société bi xam nañ ne yow mii fii ngay liggéey waaye pourquoi chaque jour boo demee nga badge pour ñu xam ndax amoo pour ñu xam ndax ñëw nga heure pour ñu xam ndax liggéey si nga te pourtant xam nañ ne yaa ngi ci société bi waaye saa yooyu ñëwee rek di nga badge leer na loolu mooy yéene yàlla xam na ne moo la bind xam na ne moo la sant nga jaamu ko waaye dafa bëgg nag nga yëg ne taxaw nga te fi nga koy defee te yaa ngi koy def moom soxlawul de yow yaa soxla pour yëg ni yegg si nga ci société bi yaa ngi budget pour ñu accordé la ne na d'accord nañ ni ñu xëy si nga huit heures jeex na loolu mooy yéene su ko defee laa ilaha illallah moo ci topp muy ñett Seydina Cheikh mu ngi ko jot gannaaw ñeenti at 1214 kon wér na ne mboolem awraadu tarixa bi mu ngi ci biir alquran mu des nag salaatu salaatu ala nabi bu mu mën a doon ñu ne lu tax Seydina Cheikh jël salaatul fatih waaye Seydina Cheikh wane na bopp tey booy laazim dagan na nga jël sax salaatu bu la neex ba ci salaatu ibrahimiya bii bu la neexee nga laazimee ko salaatu bu mu mën a doon ci salaatu yi salaatul ummi yi salaatu yi salaatu ibrahim salaatu bu mu mën a doon mën nga ko laazimee waaye wasifa nga ko mënut a defee na wasifa beneen dimension la kon Seydina Cheikh wane na ne salaatu yëpp ñoo yem fa yàlla waaye yemuñu pay ca yàlla na ndax salaatu yëpp ci yonant bi la jëm te li lay won ne salaatu kenn defalu ko sa bopp a ah, gisaguma benn salaatu ci salaatu bu valable ci kaw suuf bu tàmbalee usalli discours yi gaa yi day dinaa ciy dégg usalli wa usallimu mane ne yaay kan be usalli discours gaañi gaañi seeni discours dinaa ciy dégg de usalli wa usallimu ala sayidina muhammadin ma ne ah nga di yaay kan be usalli ah ah kañ sew sew la de ma yaay kan be usalli wa usallimu yow nekkoo di yow amoo di yow matoo matle woo xamoo xamle nga naan usalli ci koy salli yow amoo sax di yow nekk ko yaay kan ba naan usalli yàlla mi tëb ne inna allaaha seetal waxul moom inni yàlla wax niñ seet sew sew yi yàlla waxul inni wa malaikati waxul lool de yu sallun dafa jël jëmmam teg fële ne inna allaha naka buur bale ñuy wax yàlla te mooma moo nekk fële moo nekk fii wa fi samaai ilaahukum wa fi l ardi ilaah wa fi samaai ilaah wa fi l ilaah mu ne inna allaha moom la wax de inna allaha sama sëriñ bu baax ba Cheikh Alxaaji Abdul Aziz radiyallahu taala moo daan wax ne ñun dañoo tilim nukk yonent bi set wecc ñu taq ripp mu set wecc ñu tilim nukk mu mu leer nàññ kon mënuñoo def dara ca moom mu ne Seydi Aboubacar si di Seydi sëriñ Babacar si moo daan wax ne buum bu teeŋee dañ ko yeew ci bopp yëkku kuy kuy kuy ma moo di suñu borom moo tax kenn julliwul ci yonent bi ñépp teg fan mbir yi ne yàlla mënuñu li nga santaane mënuñu ko kon wutuñu ci yow de mën nga ko julli ci yonent bi ak sa malaaka yi julli ci ñoom ndax xam nga ko te yaa ko xamal malaaka yi ñun na xamaguñ ko mënuñu kon ni ñuy def allahumma yow buur moomu te baatu allahumma moo rassemble turi yàlla yëpp mooy allahu buñ dagg moo tax yonent bu ci daan ñaan xéewal rek allahumma lay indi yonent buy ñaan intervention nga dégg mu ne rabbi <laughs> alxuraan ay sew sew la boo foo dégg ab yonent ne rab rabbi rek intervention lay ñaan digganteem ak boromam pour xettali gaayam waaye foo dégg mu ne allahumma rek xéewal la bëgg qul illahumma malikal mulki qul allahumma rabbana anzil alayna allahumma rabbana anzil alayna maidatan min as-sama takunu lana ku ko waxoon du yoon ci yàlla isa alayhi salaatu wasalaam qul illahumma rabbana anzil alayna maidatan min alsamai takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan mink warzuqna wa anta xayru raziqin qaala inni munazziluha ca saasa rek ba day ba muy daaneel rek yàlla ne ko xaale inni munazziluha ilaykum jeex na moo tax alxuraan dafa bari ay ay ruq bari ay roq ñu ne nag ma ma am beneen leeral bu ma leeral ci suñ combat ba woon ca unité 9 keroog it dama juum ne 89 laa waxoon 97 la woon bi ma paree laa seetaanaat mbir yi gis ne 89 laa wax dama juum 97 la woon ci laa woo sax pour leeral ma woo Ibrahima Seck ba nga xam ne mu nga fa woon te am naa numéro téléphone am ma woo ko mu ne ma 97 la ma ne ko loo may indil preuve mu ne ma ca déwén sa la sama papa gaañu moo tax <laughs> xam nga nit bu bàyyam dee rek fokk ma xam ko mu ne ma <laughs> ah waaw te dana jàpp dat ba mu ne ma ca déwén sa 98 ca la sama baay faatu ca yeen mu ne ca at mooma it ca nga ma may soxna ma xam ne kon wax na dëgg waaw kooku jàpp na dat bi bu baax kon maa ngi ciy jéggaluwaat su ko defee moo tax Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu taala an wax ni Seydi Aboubacar si radiyallahu an daan na wax ni mu ne Cheikhul Hadj Malick radiyallahu an daan na wax ni buum bu teengee dañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy bopp yëkk wa nag moo di suñu borom subhanahu wa taala gannaaw ñun mënuñu ñu ne allahumma salli moo tax fawu mu nangu yow defoo ko sa yoon newu ca moo tax salaatu ala nabi am garanti bu day ni boo ko defee yor njàpp mu nangu boo ko defut yor njàpp mu nangu soo génnee ci duus bi wax ko mu nangu soo ngeen baal ma ci waxi boo wàccee ci sa kaw soxna wax ko mu nangu bu la neexee sax nga nekk ci kaw soxna si di tari sa salaatu ala nabi lu tee mu nangu loolu salaatu ala nabi rek ko am si passe partout la caabi passe partout la foo dugal mu tijjeeku moom foo foo toog rek bu la neexee del julli ci yonent bi dafa rawati nag nga yor njàpp or nga yor njàpp maanaam boo yorul njàpp wax ko boo amoon fukk boo yoree njàpp wax ko téeméer ngay am boo ko doon wax am téeméer di dox boo toogee junni ngay am boo toogee te jubluwoo xibla di ko wax am junni boo toogee jublu xibla di ko wax téeméeri junni ngay am ci orma yi ci orma yi nga ciy amee liñ ciy amee moo tax sëriñ Babacar si radiyallahu anhu ma indi entre boobu Cheikh El Hadj Abdou Aziz nee na góor gi Massamba Sall dafa jógee këram di ziyaare ji sëñ Babacar si waxtu gannaaw tàkkusaan nee na bi mu yegsee fekk kër gi ñëpp ñëpp mu ngi fees dell ñuy xaar sëñ Babacar nee na bi mu ñëwee ba yegg si ba nuyu ko ne ko si man de xam nga ne chef de canton la dëkk bi am naa fi cër mu ne ko waaw ah, mu ne ko sama kër de bawuma fa kenn yow ma ñëw ci sa kër gi fekk nit ñi di raj raj loo xanaa du salaatul faati bi ngay liggéey du moom lay liggéey mu ne sëñ Babacar muuñ ne ko sàll wax nga dëgg de bi ngay liggéey laay liggéey de waaye orma ji ma koy jox nga ko mënta jox moo tax li ma ci am doo ko ci am ku la ëpp orma jox ci sikkar rek moo la ëpple ci yàlla lu mu ciy am orma bi rek ak teewlu bi kon salaatu ala nabi moo mujj ci laazim bi kon Seydina Cheikh tey wàccoon ak ñëpp nee na sooy laazim bu la neexee salaatu bu la neex nga jël ko waaye bu dee wasifa mënu ko ñu ne ko lu tax mu ne wasifa du téeméer juróom fukk la te juróom fukk yooyu doole jam pour mu am doole ji muy yéegee pour mat téeméer salaatul faatiha rek àttan doole jooju ndax du téeméeri salaatu juróom fukki salaatu la doole ji koy yéegal salaatul yi rek a ko am lu tax ak jawharatul kamal ba ca kanam ca wazifa dinaa ci ñëw ci yëpp waxoon naa leen nit ne bu may layal tariqa tijaan li may wax toujours oustaz Samb ma nuyuwaale ko oustaz Souleymane sàmb ak imam Mouhamad Lamine Sakho ak Serigne Saliou Mbeng damay wax imam toujours ne ko sëñ Souleymane Samb dama koy wax ne man su may waxtaan ci tarixa tiijaan mboolem turuq yépp nañ ma déglu te xam ne maa ngi leen di waxaaleel murit tiijaan xaadir laayeen ñépp laay waxaaleel ndax lii may layal tarixa Tijaan moo moom ne ñuy dalee ci kaw tarixa yëpp turuq yëpp ndax ñi gëmul tarixa yii la ñuy dàjjati benn par benn pour wan la ne tarixa bi daa la amut ma wan la ne nag tariixa sunna la sharia la lu tax nag salaatul faatixi te jëluñ salaatu ibrahim ñu ne salaatul faatixi Seydina Cheikh moo ko fomante loolu lañ wax de ak jawharatul kamal waaye yëpp ma indi lay bi rek ñu ne ndax yonent bi bàyyiwu ko fi woon waaye yooyu ay wax yu yàqu la yonent bi bàyyiwu fi woon ceebu jën te yow mi yow mi weddi Seydina Cheikh yaa ngi dank ceebu jën waaye nañ waxante dëgg rek yonent bi bàyyi fi woon supp kànja yonent bi bàyyiwu fi woon maafe yonent bi bàyyiwu fi woon car rapide ah bi bàyyi fi woon njaga njaay yonent bi bàyyi fi woon scooter yonent bi bàyyiwu fi woon avion waaye lépp ci barkeem lañ ko amee bu fekkee ne yonent bi lu mu fi bàyyi bàyyiwutoon rek bidaa la kon nañ diggu bàmmeel yi fi ne yëpp tey kon bidaa la ba waxukaay bii ñuy waxee àddina bi yëpp di ko gis kon ñoom ñi koy weddi bu ñu waxati ci télé yeeg rajo yi buñ defati live ndax foofu ñuy waxee bidaa la te ñoom ku ci bëgg sa wax jàll rek yaa ngi ci youtube bi ci ñoom youtube bi la li xaraam youtube maa ko wax bu dee lu jub ñu ne xaraam maa ne xaraam youtube ba xam ñoom ñiy wax ci youtube nañ ko bàyyi bon <laughs> waaw bu fekkee lu jóg nga ne xaraam lu jóg nga ne xaraam lu jóg nga xaraam mais fooy dundeeti actuellement ni àddina bi déroulé di déroulé yépp système bi yépp a xaraam ma wax la ko boog tey àddina ni muy déroulé système bi yépp dafa xaraam système bi yépp a xaraam moo tax li ngone soosu di tooñee bàyyi mbay ngone soosu ku ma neex la ngone soosu ku ngone su reelu soosu bàyyi mbay li muy tooñee Ousmane Sonko ne Sonko nee na système bee yàqu wax na dëgg Sonko moom baatam boobu bu mu ko bàyyee te mukk Ousmane Sonko slogan boobu bu mu ko bàyyee te système bee yàqu wax na dëgg Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum bu sëriñ Babacar si bu Cheikhul Xaaji Malick nee na dama dem France am benn ni eh, tubaab bu ñëw dama yéen a ngi fii di wax lislaam lislaam lislaam te yéen a xam ne yéen a gën a xam ne système bi ni muy doxee yëpp système mu riba la te yéen a ngi ciy dund nekk fii di rey nit ñi xaraam xaraam xaraam sëriñ Cheikh ne ma bàyyi ko ba mu wax ba pare ma ne ko nu ñoo def fokk ñu dund mu ne ko yow jàngoo li ñu jàng waaye boo jàngoon liñ jàng ma yóbbuwaat la ci risaala meddi lañ ko jàppee rek mu ne ko waaye ñun liñ leen tanee xam nga lan la ñun dañuy lekk ci riba bi di julli ci yonent bi mu di ko lugg yéen ngeen di lekk ci riba bi di dem safara mu ne ko ñun dañuy lekk ci riba bi di julli ci yonent bi mu koy lugg yéen ngeen di lekk ci riba bi julliwu leen ci yonent bi dem safara jeex na mais système bi ni muy ni muy déroulé mais boo ko bàyyee léegi nga dee te danga nga war a dund kon lu jóg nga ne xaraam loo yëkkati ñu ne xaraam yow mi wax xaraam ak sëriñ si yëpp nga jël leen dugal leen safara mboolem suñ sëriñ su baax si yëpp ñu jël leen tàbbal leen jahannama ak suñuy taalibe seeni taalibe ma di la yëgal ne yow moomu di ko wax bàyyi lu youtube yow moomu di ko wax bul takk montre yow moomu di ko wax yére ya nga sol summi ko yow moomu di ko wax dàll yaa nga sol summi ko yow moomu di ko wax bul duggati oto deel dox yonent bi da daan dox wala nga uti gëlëm wala nga uti fas wala mbaam yow moomu di ko wax bu lekk ceebu jën bu lekk maafe bu lekk suppu kànja bu lekk suluxu mbala de lekk rek tàndarma ak ak ak ñamu tàndarma wu tooy te di ci def ñetti yoon ndax yonent bi ñetti yoon rek la daan def nii ñetti baaraamam yeneen fa lillahi alhamdu lu ndox bari bari bari boo ko ko joxee mu guux ñetti guux ne fa lillahi alhamdu lu meew neex neex neex ñetti guux lay guux ne fa lillahi alhamdu lu soow neex neex ñetti guux lay guux ne fa lillahi alhamdu lu lem neex neex ñetti mos la ciy mos ne fa lillahi yow nag ñett ñetti yooyu aca sax ca loolooy sunna te bàyyil ñu dànk ceebu jën wala kuddu la cheikh al islam ibrahim ñas waxoon Baye Ñas moo ko waxoon kis moo ko waxoon astaghfirullah benn baas ba ca Arabie Saoudi toog ak benn baas benn baas di dammat tarixa rek di dammat tarixa rek di dammat turuqiyat téléphone am sone kar mu yëkkati wuyu bàyyi ne ko xaraam mu ne ko limaasa mu ne ko hël muhammadan yatakallamuuna bi téléphone <laughs> ah fi toog di waxtaan ak bàyyi rek téléphone bi sone mu yëkkati wax ba taa pare teg bàyyi ne ko xaraam mu ne ko fu mu xaraamee mu ne ko ndax yonent bi bàyyi ne ko ndax yonent bi daf daan wax téléphone mu ne kat mu ne pat bàyyi ne ko man kaana fi haadihi ama wa huwa fi la axirati ama wa addallu sabila ku gumbo fii yowmal xiyaam da ngay gumbo te dangay dem safara ndax réer nga bi nopp mu ne benn ba benn ba silmaxa la woon gumbo la woon mu ne ko yu fassiruhu bàyyi ne ko déedéet nañ ko bàyyi noonu rek bu ko kenn firi <laughs> boo ko firiwul kon silmaxa yëpp nga dugal leen aj safara mu ne bàyyi firi ko bàyyi ne ko du ma ko firi noonu rek mu ne ko fokk ñu firi ko bàyyi ne ko ma waaw kon nag yéen bàyyi leen lii ko te ko génne xaraam yàlla moo yaa gën a xam ne yàlla waxul gumbo gi ay bëtam gëmm kooku silmaxa la tudd yàlla waxu la kooku ki xolam gumba ci dëgg laa ilaha illallah ka ca xolam gumba kooku la yàlla wax di wax ne safara la jëm mais boo ko firiwul àddina tukki boo yemee rek ci texte bi ci yax bi rek man kaana fi hadihi ama wa huwa fi laaxirati ama wa addallu sabila yemal foofu rek du baax bi mukk waaw ah, kay gumba ki xolam gumba la yàlla di waxal foofu yaa ngi koy déggee ci innama la taamal absaar walakin taamal xulubu lati fi foofu ama la kon ki xolam gumba ci dëgg waaye dëggug yàlla gi nag mu di laa ilaha illallah ki ko xolam gumboo gumboo ba mënu koo wax ci làmmiñam kooku la yàlla ni safaraa koy xaar. Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Malick ne. waaw kañ. zikrul ilaahi li qulubi quutu in lam ta'is bihi fa hiya tamuutu mu laay mu Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Malick sa sang boobu nee na ko zikrul ilaahi lil qulubi quutu إن لم تعش به فهي تموت ذكر الإله سلم لراقي لحضرة العزيز الحي الباقي أحيوه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 ci laa ilaha illa suñ mag ñi niñ ko fonkee woon xoolal cheikh al islaam bàyyi niñ fonkee laa ilaha illa buñ ko riimee rek sa àddina tukki da yëg ne lii yàlla piir la laa hmm? ilaaha illallah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 ilaha illallah la ilaha illallah maam Ndiaye tabaarakallah nii rek laa ko bëggee mu Muniru Sàmm ñu di ko ndokkee laale ci ganam gi daf doon tudd keroog tuddee ko Mawlaaya Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh Malick ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax mu Muniru Sàmb yal na tur wuyu boromam yal na jël barkey turandoom yal na jël jikko ya yal na jël xam-xam ba yal na jël wilaaya ba yal na ko ko yàlla defal ñetoo sa doom de jur doom tudde ko sëñ Abdu wàcc nga waaw yal na barke ni turandoom yal na barke ni turandoom yal na barke ni turandoom te nga fekkee yëpp yàgg yaayam ñun saalum saalum yi ñuy wax yàlla bu ñu seddalee dara ginnaaw waaw bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon gis nga nii ñu ko waxee ci Tiwaawan mu neex ñu wax ko ci ña seen mu neex Baay Faal yi seen laay laay la laa lu ko dàq am na nga dem ca Njaasaan laay laay la laa bu Njaasaan nga dem ca laayeen nag moom waxe noppi ñoom bañ nañ ko ba ñëpp sax laay laay la ah waaw bu fekkee ne wax laa ilaaha illallah dafa xaraam ñu wax ma bu fekkee ni wax laa ilaha illallah dafa xaraam nañ ma wax par benn laa koy indi man yàkkamtiwu ma bu fekkee ne wax laa ilaha illallah dafa xaraam nañ ma wax nañ remonté bu fekkee wax salaatu ala nabi dafa xaraam nañ ma wax bu fekkee wax istighfar dafa xaraam nañ ma wax istighfar salaatu ala nabi laa ilaha illallah ñu ne pour pourquoi nasin wi waaw kañ pourquoi CP1 CP2 CE1 cm CM2 BFM bac université lu xë lu tey rek ñu xëy yóbbu la cité li tax loola moo tax lii <laughs> waaw li tax loola moo tax lii nasin mi ci làmmeñu yonent bi la jóge Seydina Cheikh amul dara lu mu fomante ci wird bi ñu ne pour pourquoi lim waxoon naa fi lim mooy nombre fii ko déggul wolof nombre de fois yi ñu koy def ñu ne pour pourquoi waxoon naa ko beneen bi ci des ñu ne lu tax ñu ciy ñaan ndigal ñun ñëpp ay citoyens sénégalais lañ walla du dëgg seetal pàkk bu la neex nga dem tabax ne citoyen laa dama am droit ci réew mi te awma fu ma dëkk nga seet pàkk bu la neex rek nga dem tabax pourtant citoyen nga de te buñ ko tegoon ci yoon ne war nga mën a tabax te kenn du la fa jële ndax da nga buñ doon séddale dëkk bi danga nga ciy am lu tax ñemewoo ko pàkk bu mu mën a doon da ngay fexe ba mu lew la mu leew la doyut da ngay ut autorisation de construire boo ko deful mën nañu daaneel sa tabax nga door a ut baay ba ba ngay am titre foncier te citoyen simple nga woon ci réew mi mooy jullit lañ ñun ñëpp waaye boo bëggee dëgg-dëgg jëriñu ci laa ilaha illallah ak salaatu ala nabi ak istighfar fokk nga ñaan ci ndigal mooy exemple bi ma la jox beneen bi ci des nag lu tax boo ci ñaanee ndigal ba noppi xam nga lim ute nga defal ko sa bopp xam nga liñ utee tey boo jëloon engagement di ko defal sa bopp dina am bés boo xam ne di nga sonn sonn boo xam ne da nga naan tey moom je passe dëgg la wala dëgg da nga naan tey moom vraiment sonn naa sonn boo xam ne damay bàyyi affaire bi waaye liñ la ne boo ko bàyyee alku mooy tax doo nelaw te defoo ko moo julli ngay yemale nim la wóoree ne boo julliwut dem jahannama noonu nga koy fonkee parce que joxoo ko sa bopp mais boo ko joxoon sa bopp nag doo ko joxati gëdd bi ko jox importance bi nga ko jox boo ko joxoon sa bopp doo ko ko jox ni nga xamee ni julli joxoo ko sa bopp ka la ko jox moo tax donte sax baaxut waaye moo tax ne xaaral ma ñëw julli wallahi kooku julleem koorwee la te <laughs> xalaat na ne bu ko defut yàlla nakk ko dëgg la baax na moom foofu la toll xaaral ma ñëw julli wallahi kooku waaye moo tax ne moo tax ne <laughs> ma ñëw julli kooku ndeysaan xaw naa ragal yàlla sax te boo boo ko déggee nag danga naan ku ragal yàllaa nga kooku ragalul daray yàlla <laughs> moo tane nag ki ko dut def moo tane ki ko dut def wala sax moo gën ki ko dut def moo gën ki ko dut def waaw donte ci loxo yàlla la ne moo gën ki ko dut def xam nga ban moo baax mu jot nga def ko amoo ci métitu xol tiitoo ci yàkkamtiwoo ci nga xam ne buur bi la ko sant il est patient la yonent bi waxoon ne defal nañ ma sedd xol ak dalug yaram ci julli nga jàppee ko noonu bañ ko jàppee corvée kon jox bi fawu mu am waaw boo weddee jox xëy rek dem ci ministère bu la neex nga ne damay liggéey si Alaaji Malay mii mu ngi nii toog enseignant la woon bi nekk directeur de lekkool sa doom walla sa sët yi kenn nañ xëy rek ne sama maam directeur de école la woon jubali ci école ba ne je suis le directeur <laughs> dina sotti <laughs> xëyal rek yéen ñuy chômer man maa leen ko wax yéen ñuy chômer vous les jeunes xëy leen dem ci ministère bu leen neex toog ne da ngay liggéey bu la fa ay lii fekkut nga xam ne yàlla buur la yéen ñëpp xam ngeen ministère yi ku ci nekk li nga jàng xam nga ministère am xëyal rek dugg ne damay dem liggéey par la force parce que citoyen yi laa ci réew mi maak ñoo ma yem ci réew mi dama war a liggéey jubalil ci ministère ba rek nga dem liggéey ba xam ay lii fa la fay fekk ñaan ngaa ngoog di da ngay def demande di <laughs> lu tax ngay def demande gannaaw bi nga jàngee ba noppi nga def demande d'emploi yóbbu ko ca fa nga ko wala yóbbu nga toog ba ñu yónnee la mail wala ñu convoqué la wala ñu woo la téléphone nga ñëw ñu defal la entretien est-ce que apte nga wala apto bu entretien bi jàllee ñu ne la da ngay def stage trois mois ñu xool ndax tu es compétent wala déet bu trois mois yi jàlle ñu defal la CDD du tax ñu wóoloogum la de. CDD bi dañ lay xool di la xool di la xool ba wóolu la ñu defal la CDI noonu la amee ci tarixa yi de am na ñoo xam ne ci CDD lañ tolloogum ba ba nga yegg nag ci CDI boo yeggee ci CDI ku la dàq fay la sa droit <laughs> boo yemee ci CDD buñ la dàqee ñàkk nga te amoo droit ñu recruter ñu liggéey loola ñetti yoon ci CDD. trois embauchements ci CDD yaakaar naa noonu la de ci constitution bi hmm? te recruté wuñ te jëluñ la CDI waaw léegi fii àddina la nga nangu li àddina santaane yëpp étape par étape bu dee yàlla nga bañal ko. étape par étape nga nangul yàlla àddina bii li fi ne yëpp nga nangul ko ko yow mi contesté suñ mag ñu baax ñi laa wax di weddi suñ tarixa yi yaa ngi weddi tarixa te yëgoo yaa ngi ci biir tarixa ndax li ngay def yëpp am àddina pour tedd tarixa la yoon la woy jaar pour am àddina kii nag jël yoon wu muy jaar pour am yàlla nga ne doo ko fi amee waaw d'accord na weddil waaye bul ŋàññi weddil rek toog yàlla mën na leeral sa bët ba la fëkk la indi gaañi indi la la Seydina Cheikh waxoon ne sama lonk gi bu ma ko sànnee loo rëy rëy bu ma la ci jubloo nga ñëw mu ne mu ne soo fi nekkee di cëppi cëppi rek sama lonk gee la soxlawul kon laa ilaha laa ñëw dollee ko ci yow taalibe tijaan bi tey wala ñun taalibe tijaan yi tey ñu am loo xam ne suñ sëriñ amu ko woon waaye ci suñ barke sëriñ suñ sëriñ par étape lañ ko ko joxe yow nga xëy ñu joxandoon la yépp suñ sëriñ Seexuna Tijaan yi par étape la ko amee dégg ngeen ko istighfar salaatu ala nabi laa ilaha illallah jawaratul euh, euh, wazifa ak xadaratul juma jawhara door a ñëw balaa may ñëw ci lenn ci Seydina Cheikh jawhara boobu rek li ci gaa yi wax kenn xamut nu mu toll ci weddi ko ay toni ton lañ ci bind pour weddi ko ñu ne jawhara nag ci la Seydina Cheikh njeberee taalibe yi ba jàpp leen loolu la gaa yi wax de waaw am na ku bind mu ne Seydina Cheikh njeberkat la woon mu ne ba pare luxuskat la woon ndax xamuñ fuñ fu mu xamuñu fu daan jëlee xaalis yooyu yëpp ma ma dimbale leen ci bind ci ay ton gannaaw yonent bi Seydina Cheikh moo ëpp kuñ dal ci kawam ci àddina bi waaye lu mu ko wàññi gannaaw sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Seydi tiijaan yi moo ëpp kuñ dal ci kawam ci ay mbind ci àddina bi tey ndax moo leen turuq yëpp mën nañ leen a toléré ba mu des tariqa Tidiane ndax lan jawharatul kamal bii moom lañ mënta supporter te benn baat lañ ca dàkk muy asqam siraatika taamil asqam wala siraatika taamil asqam boo ci wax rek baax na baat boobu lañ mënta tollaleer Seydina Cheikh ñu ne baat boobu mooy njaber bi dama leen koy wax nag yéen ñi may seetaan dama leen di wax de gaa yi baat boobu lañ jël ni mooy njaber bi nga xam ne mooy jàpp taalibe yi ndax miinuñu ko ci lugatul arabiya baatu asqam lu muy firi ñoom ñu ne mooy ku wéra di dëgg la hmm? inni saqim ba maam Ibrahima waxoon du moo ko waxoon inni saqim hmm? tariqatu lu ma la waxoon ca début ba tariqatu tijaaniyatil ahmadiyatil muhannafiyatil ibrahimiya al asqam inni saqim yow mi may déglu déglu ma bu baax <laughs> déglu ma bu baax li tax Seydina Cheikh ne la tariqa bi tariqatu tijaniya al ahmadiya al muhammadiya al xanafiya al ibrahimiya ku waxoon inni saqim maam ibrahima siraatika taamil asqam ibrahimiya saqim boobu maam Ibrahima waxoon moom jubluwu ci feebar ci yaram de xol baa feebar ci namm yàlla dafa namm yàlla ba xol bi feebar mu ne yàlla indi saqim dama feebar ndax namm la baatu asqam ñetti ñetti araf la alif siin alif astaghfirullah alif la siin xaaf ak miim muy ñeenti araf alif siin su wow xaaf bu am ñaari tomb bu dee riwaayatul xafs bu dee riwaayati wars bu am benn tomb ca kaw ak miim benn bu ne araf boo ci gis ci araf yooyu maqaam la ci pays yàlla yi alif bi mooy aliful ilaahi dara newu fa fu dul ku dut yàlla noonu nga koy toppee loolu yegsee guñ ci danaa ci ñëw benn araf bu ci nekk maraatib martaba la ci maraatib yi ci pays yàlla ba maam Ibrahima wan ko Seydina Cheikh nam jaaree ji woon ca moom ngir defar intervention taalibeem ba Mouhamadul Misri Seydina Cheikh laaj yónnent bi yaay kan salaatul faatixi yàllaa ko wax yonent bi wax ko malaaka yi jawharatul kamal seydina cheikh moo ne maamam yaay kan yonent bi dindi kiiraay yi ne ko allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaquutati almutaxaqiqati almuxaa'ita bi markazil fuhumi wal maani oh. ba jawhara jeex mu ne ko ana hakada yonent bi moo waxal ba dinaa ko firi benn par benn incha allah moo tax ma ne buñ yàkkamti rek yonent bi bi ko Seydina Cheikh laajee luy sa carte d'identité te bu ma nëbbu yaay kan ca yàlla mu ne ko allahumma salli gis nga moom tële na de mu jëli suñ borom ne ko nu ma mel mooma nu ma mel rek suñu borom la allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati inni déglul allahuma salli ala ayni rahmati rabbaniyati wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina huwa ayni rahma wa rabbaniya ballukaay yërmande fa muy ballee ca péeyu yàlla ba mooy yonant bi mooy jëmmi ballukaay ba moo tax yàlla ne ko maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina yónniwuma la lu dut ngay yërmande ci mbindeef yi foofu la njëkk a wonee Seydina Cheikh ne ko man du ma nekkaluma la fi yow rek de pour ñëpp la waaye xusuusiya bi nga xam ne ku ma làmb daj ma nag ku topp ci sa ginnaaw a koy am fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galiza alqalbi lan fadu min hawlik faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi l amri fa ida azamta fa tawakkal ala allah góor ga wax na ko de qul daa'imul bisri sahlul xalqi laylu jaana xillay mm. sa fazzan غليظ القلب في الإمام من كل وصف وصف حميد عاص أفعال وخلا دين رجاء البراء يا يوم مصر شريف سمام قل دائم البسري سهل الخلق لين جناح ليس فظا غليظ القلب في الإمام من كل وصف حميد عاص أفعالات أي أيوة وجدل رجاء البراء يا يوم مزدحمي تبارك الله jërëjëf xaaj Seydil Xaaj Malick yii boo gisee ma di ko indi pour yow mi yor tariixa bi nga bañ ñu toj sa bopp ci mbedd mi naan la xuraafaat la yi bu ci jàpp nangam nangam mooy tax may leeral lii ba ku la ko wax nga ne ko oh, déggoon naa loolu <laughs> ku la ko mën a wax nga ne ko oh, saawaay déggoon naa loolu loolu dérangé wu ma continuer sa yoon loolu rek laa ci bëgg parce que nit boo xamoon li mu yor gaaw koo sànni day yomb ci moom te fekk jamaa nga yor sànni ko ñu jox la weñ gu ñuul musiba la nga yor jamaa ñàkk koo xam sànni ko ñu jox la weñ gu ñuul na ngay xaafar xaafari foog ne yaa fa nekk ñu ne gaa yi weddi ñu ne dina Cheikh jinne yee ko jox jawharatul kamal ma ne ah tarixa bi day Seydina Cheikh bokk na ci lim gën a bañ ngay sukkandiku ci mbiru jinne aka koo bañoon taalibeem yépp sax dañ ko bañ wax naa la daaru miraar bi Seydina Cheikh jënd bi mu koy jënd pàkk la bu fa neew ne ku fa dëkk dee Seydina Cheikh ñëw di ko waxal ñu ne ndokk nañ ko ko jaay ndax mu dee fii ku fi mës dëkk dee ndax jinne yi fi dëkk duñ la bàyyi nga dëkk fi xamu ci dara nag doxandéem de gan la nañ ko bàyyi mu jënd ko ndax mu dee sax ñu noppalu Seydina Cheikh jënd ñu naan ñaw muy tabax ñu naan léegi mu dee mu dëkk ñu ne suba la gannaaw suba la ba mu am juróom-ñetti fukki at ci seen biir <laughs> ba mu ñëwee ba dëkk jinne ya fa dëkkoon faf jébbalu ci moom jël tarixatu tijaaniya bokk na ci rek pour wal na Seydina Cheikh itteewul jinne samaharos bi ngay dégg samaharos bi ngay dégg ñoom sëñ Souleymane Samb xam ko lool samaharos jinne la xam nga kan la tombeeloon yoon ci yàlla daawuda ca daawuda la woon samaharos ak Souleymane bi Souleymane di xeex ak daawuda samaharos a nga fa woon maanaam bis daawuda di xeex wa warisa Souleymane daawuda wa qatala daawuda jaaluuta samharusa nga fa woon pour man wax la ne alxuraan rek laay wax wa qatala daawuda jaaluuta wa ataahu llahu l mulk wa allamahu mimma yasha keroog samharus boobu mu nga fa woon ca xeex ba muy dem di dem di dem di dem ba bi ñëw samharus gëm yonent bi muy dem di dem di dem di dem ba Seydina Cheikh ñëw mu jël tariqa bi ci Seydina Cheikh mu ngi gaañu ci jamono Seydi Aboubacar si sëñ Babacar si moo ko tàggee ca Tiwaawan moo xëy bés na leen maa ngi leen di tàggee seen mbokkum taalibe Tidiane bu ñuy wax Samharous génn na àddina tey parce que moo yilif jinne yeeg malaayika yi moom sëñ Babacar si moo tax mu xam ko amul kenn kuy dem te doo ko tàggu mukk amaa ah, la ko wax kuy mën a départ di ko tàggu te dina ko gis xanaa xamoo xutbul fardul jaami rooxam malaaka àttanu ko buy dee rooxam yàllaa koy jël bi nafsihi moo tax ñu yonent bi rooxam yàllaa ko jëlal boppam dafa yebal rek malakul mawti preuve bi ma lay jox alaaji abdul aziz cheikh alaaji abdul aziz moo def demande ne yàlla malakul mawti ngay yebal pour muy rey waaye man sama roox bu ko malakul mawti jël yow laa bëgg yow suñu borom nga jëlal ko sa bopp te yàlla may na ko ko mu def ko xasida bàyyi fi lu ko ko may huwa xutbul fardul jaami xutbu xam malaaka àttanu ko pour yóbbu ko suñ borom rek a ko àttan yooyu beneen détail la samaros boobu di taalibe Seydina Cheikh lu Seydina Cheikh di doyee jinne ba waay waay waay waay waay kuy raas koo àndal ba daj président de la république nooy def jeex na maam njaay nee na sol west ba topp ca kuy ut àndandoo di ut àndandoo di ut àndandoo ba xëy yem ci président de la république waxoo ko sax dama bëgg ànd ak yow moo ne la damaa bëgg a ànd ak yow nooy def nga ne ko mu ne bu la neexee nga nekk ci sa parti amul problème yow maa la bëgg desal ci sa parti rek waaye nañu ànd ma ak yow nga ne ko déedéet mu ne bàyyil ma jël média bi jël télévision jël rajo yëpp woo leen ñu ñëw mu ne oustaz Sidi mbay bii na des ci partem man président Macky Sall maa ko bëgg na ñëw ñu ànd liggéey yonent bi moo ne Seydina Cheikh jëlal sa tariixa ma jox la ko nga jox ma garantie yow bëgg ma nangu ko te nga nekk sama doom mais loo ci mën Seydina Cheikh di ko jox garantie benn par benn dinaa ci ñëw benn par benn benn par benn ba ñu muy 23 garantie yonent bi ne ko yëpp nangu naa Seydina Cheikh door a signé pour ànd ak moom. Oh. ok looluy tarixa bi kon jawharatul kamaan. yonent bi moo waxal boppam ni mu mel moo indi jawhara salaatul faatixi nag yàlla wax nu yonent bi mel ni yàlla waxalee boppam suratul ixlaas ba ñépp xam ne identification bu yàlla muy carte bu yàlla bu yàlla doon am carte d'identité ci alxuraan fukki saar yeeg téeméer ak fukk ak ñeenti saar yépp benn mooy ci identification bu yàlla moo di qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ñëpp xam nañ ne boobay carte d'identité yàlla yàllaa joxe ñu yonent bi nag wax salaatul faatihi moo tax muy waxu yàlla moo tax mu am doole salaatul faatihi du waxu yonent bi moo tax salaatul faatihi ëpp doole jawharatul kamal moo tax salaatul faatihi gën a seddi mbir gën a woyof jarha jawharatul kamal te ëpp ko doole ndax waxu yàlla la bii waxu yonent bi la jawharan waxu yonent bi la salaatul waxu yàlla la moo tax doole ji yemuñu moo tax nga sañe wax jawhara sañoo ko wax te yoroo njàpp charte la ci te salaatul faati yi nga wax ko sañ koo wax te yoroo njàpp lu tax rahmatan lil aalamiina bii xusuusiya la bii da dugg ci électrification bu yonent bi danga nga dugg ci mégawet mégawatt bu yonent bi mégawatt yooyu ngay dugg nag boo boo amul isolement dalay griller isolement bi nag mooy njàpp bii soxlawu ko ndax wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina moo tax salaatu faatiha yi soxlawu ko moo tax faatiha soxlawul yor njàpp boo koy jàng nii rek soxlawul yor njàpp bu dee da ngay julli nag nga jàpp wala nga tiim mooy exemple bi ma fi joxe woon salaatul faatihi c'est pour tout le monde jawharatul kamal c'est exception pour le talibés les talibés c'est des c'est des euh, euh, nu ñu koy waxee waxeeti c'est des étrangers de Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ay ganam lañ mu war leen a teralee ay boissons Coca-Cola Fanta yooyu le orange yooyu bu yee teraanga yooyu mu leen war a teralee dugal leen ci benn salle pour ñu def réception salle boobu ku amul carte doo fa dugg carte boobu la fay dugal mooy jawharatul kamal carte ba lay dugal ci saal bi mooy jawaratul kamal mooy njàpp mi pour nga mën koo jàng soo ko jàngul grillé lakk ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu utal ko charte te nag dëgg dëgg dëgg nañ waxante dëgg booy ñëw ci kër boroom kër gi ne la bëgguma ko sol kiloot bu dee jigéen bëgguma ko sol pantalon bëgguma ko def boppi neen waaye boo dee boo dee nit booy dugg ci kër googu sàmmal ko li mu bëgg sàmmal ko li mu bëgg boo génnee ci mbedd mi mel nu la neex waxtaan la neex borom kër jeex na kon jawaratul kamal bokk na ci yi gaa yi mënta supporter rawati nag baatu asqam ñu ne mooy njabar ba piir fa la Seydina Cheikh jàppee taalibe ndax miinuñ ko ci luxatul arabiya waaye nañ dem ci alquran inni saqim saqim mu tëgg ko af alal tafdil hmm? kañ hmm. asqam siraatika taamil asqam ñu ne dafa waroon a wax ne siraatika taamil aqwam ma ne déet ñu ne boo ko doon firi tey du jub ma ne ñoom ñoo dul jub yooyu yëpp dinaa ci ñëw à suivre ci côté boobu ba ma yegg si ci dama lay wax rek jawaratul kamal mais yegg seegu ma ci baatu askam bi lu tax wax naa la nag ne e, daraja la ci darajaat yi ci pays yàlla yi waaye loolu ki xam maarifa tax ñuy wax ak ki gëm tariqa waaye ki nga xam ne charia kott kott la gëm gëmul leneen boo ko nee askam lu yooyu mu ne fuñ ko bind waaye nag ma delloo ko ci alquranul karim inni saqim ñu wéy ñu ne pourquoi jaw salaatul faati te yonent bi waxalul boppam salaatul faati ma ne yonent bi wax ko yàllaa ko <laughs> ka bind yonent bi moo wax salaatul faati nga gëm ñu ne yonent bi ba yàlla waxee inna allaha wa malaikatahu salaatu ibrahimiya la indi ma ne benn fa la baaxee tariqatul ahmadiyatil ibrahimiya moom mënoo génn moom foo wiiri wiiri jaari ndaari la tax nag yonent bi wax salaatu ibrahim ñaar la wa tabi millata abika ibrahima yàllaa ko ko wax huwa samaakumul muslimina di ñaar wa tabi na nga topp abika sa ibrahima bu ñuy wax ibrahima huwa moom ibrahima moomu sammaakum moo leen tuddee almuslimiina ay jullit du dëgg xam nga tëb rek dal ci sa bopp neexul doof rek koy def moo tax bañ ko ne ni ñuy jullee ci yow mu ne allahuma salli ala seydina ibrahima ndax wata bi millata abaika ibrahima jaa tax sañu ta wàcc yoon sañu ta wàcc yoon yu benn yonent sañul wàcc yoon waxuma la ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne allahuma salli ala sayidina ibrahim wala ñi nanguwul sayidina ibrahim ala ibrahima waaw ñoom sax baatu sayidina dañ koy diingat ne kenn waru koo wax ab yonent waaye léegi yooyu sax ñu ngi ciy génn xam nañ ne yooyu ay xuraafaat la baatu sayidina su dey si bii astafirlah eh, saoud eh, astafirlah waaw Soudéis xalifa Diallo fekke na ko suñ màkk ña Soudéis si jël benn baat Seydina keroog dama tiit ne kenn waru koo wax yonent bi ndax ndax tarixa tijaan bee taxoon muy wax boobu naan baatu Seydina kenn waru ko wax yonent bi di ci xutba àjjumaam yépp keroog ci la ko def laajal xalifa jàllo bi bii ci amoo amookat laaj ko di goro sëriñ Abbas Sall xalifa jàllo bii ancien douanier dëkk amookat di goro sëriñ Abbas Sall ndax doomu Serigne Abbas mooy ñaareelam pour mu leer laaj leen ko rek su dee si nekk ci baati Seydina rek mel ni ko wax Seydina yéefar nga ma ne gaa yi ma leen bu fekkee ne lii weddiwu ko juma bii di ñëw yàlla bu suñu aj nangu ma xam ne kon yonent bi amut ñu ne ah ma ne leen jarul ah parce que kii lii mu wax bi gémmiñam gi di fuur lu ko jar baati dinaa rek mu def ci discours xutba jumaam yëpp mu def ko ci ne kenn waru koo wax yonent bi ma ne leen fenal na yonent bi te li mu wax yonent bi yëg na ko te dina ko tontu. billaahi wal kitaab yi ñuy dem di li ma lay wax ne 2004 la ba ajjuma bi del si fa mu taxawoon di wax fa la taxaw wit di waat ko ba mu set ne wallaahi moom rek ay sang <laughs> ne yonent bi rek ay sang dal di indi eh, eh, kaana sayyidan wa xasuuran bi yàlla wax yonent yàlla kan laati ci yonent yi dimbalem Zakaria walla Yaxya kenn la ci Yaxya kaana sayyidan wa xasuuran mu ne ndem Yaxya la yonent bi di wax kaana sayyidan sanga la woon wa kayfa muhammadan ma ne ah lam gis du ko wax indiwaat baatu seydinaa bi di ko lay di ko lay di ko lay ne yonent bi lañ ko war a wax moom moo ci gën a yeey ma ne ndokk ba mu ko àjjuma bi paase la ko wax àjjuma bi del si mu weddiwaat boppam te ñoom bu ñuy tagg seen buur yi lu ñuy wax demal Maroc rek lu ñuy wax jalaalatul malik Hassan Sani jalaalatul malik Hassan Sadis ñoom arabi saoudia lu tax ñu bañ ko loolu lañ daan wax jalaalatul malik roi Fahd moo gënt gis yonent bi mu ne ko buñ la ko waxati jalaalatul malik kenn rek la mooy suñu borom keroog la Fahd décrété ne na ñuy wax xaadimay ni xaramay ni sharifay ni xaadimayni xaramayni sharifayni mbindaanu ñaari jumaa yi yu tedd yi muy Makka ak Medina ba léegi ko fa toog loolu lañ lay wax ñoom ñiy weddi eh, tariqa pourtant Fahad bun Abdul moo gënt rek gënt gis rasulullahi mu ne ko bu la kenn waxati jalaalatul malik nañ lay woowee xaadimul xaramay ni sharifay ni keroog la décrété génnee ko biir màkkatal mukarram ah moom dafa gënt ñun suñ sëriñ si dañuy gis waaw hmm. <laughs> ah, te am na ñoo xam ne moom ñoom rek lañ gëm te li may wax yàggul darakat li may wax yàggul di yàggul di yàgg na yàggul Maroc ñoom ñoo ko dese ba léegi jalaalatul malik la ñuy wax waaye kuñ ko ci wax ci moom gisoo benn buur bu fa toog bu wér amul <laughs> yàlla xereñ Assane de gënoon wéradi ci kaw suuf xoolal kii ngone si bi mu toogeeg léegi boo ko gisee foog ñam ne téeméeri at Mohamed Siis xool ko dara waralu ko lu dul jalaalatul malik bi rek moo leen di alak jalaalatul malik bi rek moo leen di alak al jalaala huwa waxidun wa huwa allah malik sax ëpp na nañ la ne malik waaye jalaalatul malik mooy ponkalu buur bi kooku gémmiñ la sax nga nangu ko jalaalatul malik mooy ndaj dànd gu ngand gi nga bëgg daraja nangu ko moo tax xool ko rek xool ko rek xale bu tuuti la mais boo gisee toog foog ne am na téeméeri at yii ay sew sew la moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu jawharatul kamal ak salaatul faatihi loolay différence bi bi nag biñ ko bi koy bi ko saxaaba yi laajee ni ñuy jullee ci yow mu indi salaatu ibrahimiya ne allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama ibrahim waaw lu tax waxut ibrahim allahuma salli ala ibrahim wa ala ali ibrahima kama sallayta ala allahuma lu ca jiitooti sax ala muhammadin moo jiitu dimbale leen ma de lu jiitu ci salaatu ibrahim waaw kañ déglu ma nag lu tax waxut allahuma salli ala ibrahim njëkkeewu ko mu ne allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin lu tax wa tabi millata abika ibrahim kama sallayta te du wàcc yoon kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin nga dem ca suratu saar woowe ngay déggee barke ñoom ñiy bañ barkeerlu wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati loolee wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula dem ba ca biir innama yuridu llahu li yuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahirakum tathiran demal moo tax mu ne kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa tabi millata abika ibrahim kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima lu tax fi l aalamina innaka xamidun majidun leerut moo tax Seydina Cheikh ne booy laazim bu la neexee jëlal boobu bu la neexee jëlal salaatul ummi allahuma salli ala seydina muhammadin annabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbi wa sallim bu la neexee nga yem foofu bu la neexoon sànq booy laazim nga ne allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallim mooy salaatu bi gën a gàtt ci salaatu yi allahuma sa te matale boobu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi gën a gàtt boobu salaatu battara battara la ko yonent bi tuddee mooy allahuma salli ala saydi ala sayyidina muhammadin wa sallim baax na de waaye yonent bi ne ku ca yem doo matle mu ne ku ca yem doo matle allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayidina muhammadin wala boog wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ok allahuma salli ala sayidina wa ala alihi wa sahbihi moo gën a matale ndax yonent bi nee na képp ku julli ci man te boole woo ci sama waa kër salaata bu manqué mooy bëy bu amut geen leer na bëy bu amut geen du rafet <laughs> wala xar boog xar mu amut geen xar ma dana rafet bu mat tabaski nag boole ca <laughs> waaw comme tabaski lañ génnee du mat tabaski boole ca moo tax loo soxor soxor soxor fokk nga boole ci man lam yusalli alayhi laa salaata lahu waaw ku ci boolewul waa kër yonent bi amuloo amuloo salaatu moo tax yonent bi joxe salaatu boobu Seydina Cheikh nag ne valable na ci sama tarixa nga jël salaatu bu la neex laazimee ko mu ne waaye yaa ngay ñàkk tiyaaba ju rëy ñu ne ko tax mu ne salaatul faatixi mooy sangu salaatu yëpp ni yonent bi nekkee sangu anbiyaa yëpp ni yonent bi nekkee sangu àddina yëpp noonu la salaatul faatihi nekkee sangu salaatu yépp salaatu bu mu mën a doon ci àddina Seydina Cheikh nee na boo tegoon salaatu boobu téeméeri junniy salaatu jël benn salaatul faatihi teg ko mu wat leen dinaa ci ñëw ci ngënee ngëneeli salaatul faatihi tuuti rek pour nit ñi xam yow mii sikkar salaatul faatihi sikkaroo yonent Seydina Cheikh mooy sikkar waaye Seydina Cheikh sikkarul rasulullahi mooy sikkar waaye rasulullahi sikkarul azza wa jalla mooy sikkar moo tax mu am doole moo tax ma wax la ci bii paase ne la Seydina Cheikh bi ko Cheikh Mohamadal Ghali laajee daf ko ni ci sama pouvoir la ñuy fay taalibe yi waaye du ci salaatu bi ndax mu ngi fi woon démb te kenn def ko woon moom sikkaram la ñuy fay talaa taalibe buy sikkar kala jox kookaay sikkar ka ko jox kooka di sikkar ba ci Seydina Cheikh moo tax muy am silsila bu Seydina Cheikh sikkaree moom sikkarul rasulullah mooy sikkar rasulullaay sikkaratut suñ borom azza wa jalla mooy sikkar moo tax faw mu nangu moo tax mu ne taalibe bi buy sikkar salaatul faatihi bu ubbee gémmiñam mu ne am na malaaka moo xam ne mooy ubbi gémmiñam dar ko ci gémmiñam mu ne malaaka moomu am na juróom benn fukki junniy làng yu muy wax yu bokkul ak moromam làng mooy làmmiñ juróom benn fukki junniy làmmiñ am juróom benn fukki junniy bopp bopp bu ne ak làmmiñ bu ne la muy sikkar ci salaatul faati ñu dajale ko yow taalibe bi yaa ko moom di ko def ci juróom benn fukki junniy pay yu bokkul juróom benn fukki junni xeet yu bokkul malaaka boobu dina ko ci sikkar te yow taalibe bi yaa moom yiw bi doole yooyu salaatul faatiha rek a ko am juróom benn fukk yow mi may déglu te déggoo wolof mooy soixante mille soixante mille bopp la malaaka moomu am soixante mille bopp yooyu am na soixante mil làmmiñ ci biir bopp ya làmmiñ bu ne dina wax soixante mille boobu danañ ko sikkar soixante mille yow taalibe bi yow yaa moom yow mi toog di sikkar salaatul faati yaa ko moom moo tax Seydi Hadji ne Seydina Cheikh nee na ala bul dem ala marratun minha benn salaatul faati fidyatun jot la ca jahannama benn salaatul faati moo tax yow miy laazim nag boo fi bàyyee beneen salaatu baax na de baax na dina nangu waaye perte nga yiw wu rëy yow mi laazimee wut salaatul faati te salaatul faatihi boo ko tàmmee moo gën a gaaw salaatu bu mu mën a doon soo ko tàmmee moo gën a gaaw salaatu bu mu mën a doon te mboolem salaatu yépp moom rek a ci am azim vérifier salaatu bu mu mën a doon gaa yi dinañ jéem a taggantu ca bopp ba azami nangam nangam nangam salaatu yi moom bari nañ waaye wa miqdaarihi al moom rek a ko ci am moom doo nga ko ci am li salaatu yi di bari bari bari doo ko ci gis moo lay wan ne du waxu nit bu doon lu nit wax kon alxuraan ji gaa yi fel fem femm nañ bu fell nañ bu mel ni moom ku weddi laaj waaja ba muy jéem a rey yonent bi hmm? wamal fiilu ah, <laughs> abraha déedéet waaw kii déedéet saay-saay ba muslimatul kazab ah musuleyma musuleymatul kazab ba muy jéem ne yonent bi alxuraan yi muy wàccee dina wàccee junni mel yonent bi wàccee alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili moom it mu ne day jël tagg tëgg saar wu mel noonu naan wamal fiilu fiilu xurtuunun tawilun lu ne mu wax ko ñay mooy li am eh, ñox wi bu ñox wu gudd la am buy lekk moom lay lonkee gars ne ko looy wax nii <laughs> xam nga ni roowul alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alquran boo ko déggee rek nga xam ne borom bee ko wax du li nit wax hmm, lisaanu alladi yulxiduuna ajamiyun wa hada lisaanun arabiyun mubin lisaanu alladi yulxiduuna bi ajamiyun wa hada lisaanun arabiyun mubin waaw yàlla ne ko kañuy wax moo la jàngal koo ko déggul sa arab te lii arab bu set wecc la kon maako wax man yàlla kon salaatul faatixe ngoog yow mi weddi salaatu faatixe salaatul faatixe ngoog foofu laa ci yem ak yow waa maa nosin wi nag mooy istixfaar gannaaw yéene jàng faatixa teg ci nag istixfaar téeméer muy cent teg ci salaatu ala nabi téeméer muy teg ci laa allah téeméer muy cent lii mooy laazimu tarixa bi lu tax ñu ne laazim laazim mooy li taqoo ak yow te doo ko bàyyi mukk ni mbubb mi taqoo ak yow nga xam ne doo ko summi tey fekk yaa ngi nit xam nga kenn du toog ci mbedd mi di summeeku sa biir néeg sax xëy na kon nag nii nga xam loolu mooy laazim laazim mooy loo taqoo awraadu tariqa bi yëpp laazim la tudd laazim laazim la tudd wadifa laazim la tudd xadara laazim la tudd pour ñu séparer leen ñu xàmmee leen nag moo tax ñu naan laazim laazim wasifa wasifa xadara xadara waaye yëpp laazim la tudd mooy loo taqoo laazim mooy loo taqoo nga di ko def suba ak ngoon lu tax bil xuduwi wal asaali yow mi koy weddi fii buyutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fihi ismu yusabbixuuna yusabbixu lahu bilguduwi wal asaali lu tax rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bayun an zikrillaahi xadis yi ci ñëw moom bëri na waaye xadis boo wax ñu ne daif léegi nañ bàyyi xadis yi ñu teg ko fële waaw xadis boo wax ñu ne daif xadis yi ci ñëw moom bari na yonent bi nee na am na ñoo xam ne ci sama xeet lañuy bokk te ñooy mujj ci sama xeet wi buñ xëyee dañuy tudd yàlla buñ gontee di tudd yàlla loolu ko ko moom ku dul ñu jàpp tarixa rawati tarixa ci bi yàlla wax nag ci alxuraan ne ci biir néeg yàlla néeg sama néeg yi man yàlla ñi weddi ne sikkar turu yàlla ci biir jàkka dafa xaraam yàlla ne fii buyuutin ah mu ngi ca suratul nuur de bu allahu nuuru samaawaati wal ard di jeex rek matériel la ko boog nga dégg allahu nuuru samaawaati wal ard masalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaaxun il misbaax fi zujjaajatin a zujjaaja ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyatin wala garbiya yakaadu zaytuha yudii'u walaw lam tamsashu naarun nuurun ala nuurin yahdi llahu li nuurihi man yashaa wa yadribu llahu lamsaala linnaas wallahu bi kulli shay'in aliim fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fii fiha smuhu yusabbixuuna lahu bilguduwi wal asaali rijalun laa turhi laa tulhiihim tijaratun wala bayun an zikrillahi yàlla ne sama néeg yooyu kat am na fa ay góor yu fa ne yoo xam ne ñu nga may tudd te tudd gañ may tudd di sikkar sama tur wi man yàlla utuñ ca pertement ndax yaxantu du ñu commerçant yoo xam ne dañ naan bu ma bu ma toogee fii di sikkar tarde commerce ba laa tulhiihim bay un tijaaratun du yaxantu wala bay un du jënd ak njaay ñoom sama jëmm jaaleen ñor moo tax bàyyi nañ lépp toog ca jàkka yi di ko sikkar li ma ñëwoon cas bàyyi ko ba indi sikkar su ñesee nag bu Tiwaawan nag bu Njaasaan nag bu Tuuba ak yëpp Cheikhul xaaju Malick sëñ Abdou nee na dafa am ku ñëw bés ne ko sikkar si ngay sikkar gannaaw gee gannaaw timis xam nga buñ julliwaan timis wadifa ba pare balaa ñuy julli gee dañuy sikkar ba léegi moo am ci mboolem jàkka joo xam ne Seydul Xaaji Malick la aju ba léegi moo ci am mooy zikkar bi maam Njaay njëkk a yëkkati laa ilaha illallah boobu mu ne Seydi Hadji ne ko loo ci jublu mu ne ko bidaa la mu ne ko waaw doom te nga am teggin bu doon bidaa sax rafet na ndax toog ci néegub yàlla di wax laa ilaha illallah lu ciy bidaa mu ne ko waaye bàyyil rek ma delloo la ci alxuraan gannaaw lay nga bëgg mu ne Seydi Hadji Malick ne ko mokkal nga sa bisma rabbikal aala mu ne ko waaw mu ne ko tari ko mu ne muy commencé di tari sabbih isma rabbikal aala alladi xalaqa fa sawi waladi qaddara fa hadi wallazi axraja almar'i fa jaa lahu gusaan naxwi sanuqri'uka fala tansi illa ma shaa allah innahu yalamu aljahra wa ma yaxfi wa nuyassiruka lilyusri fazzakir in nafaati zikri sayazakkaru man yaxshi wa yatajannabuha allasqa allazi yasla annaara alkubri summa laa yamuutu fiiha wa laa yaxya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tuusiruuna alxayaata addunya wal aaxiratu xayrun wa abqaa wa zakara isma rabbihi bi mu yegsee ba ci wa zakarasma rabbihi Maodo ne ko taxawal baamu ko mu ne ko wa zakarasma bi mu ne ko baamu ko mu ne ko wa zakarasma rabbihi mu ne ko lu ñuy def mu ne Maodo ne ko lu ñuy def wa zakarasma rabbihi nañ tudd seen borom fa ca saasa bu ñu noppee rek sàllaan na ñu julli Maodo ne ko fii laa ko teg jeex na wa zakara sma rabbihi fasalla bal tuusiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqi inna haza la fi suxufi loole suxufi ibrahima wa muuse jeex na wa zakara ne ñu tudd isma rabbihi turu borom bi fa ca saasa immédiatement bu ñu noppee rek sàllaan ne ñu julli moo tax Cheikh Ibrahima Sall moom utalu ko woon timis sax kii xam na ci dara Cheikh Ibrahima Sall moom utalu ko timis ak gee waxtu yëpp mooy taxaw ca kanam gaa yi dóor laay laay la la laay laay la la ba kii mu yëkkati loxoom bu tedd ba ndeysaan ñu arrêté mu ñu door a liqaam xam na li may wax alaaji ma lay bi ak ko xam Cheikh Ibrahima waaw wax laa ilaha illallah dafa xaraam waxee ko ci jàkka nag rawat yi nga ne dafa xaraam waaw léegi kon dañ bëgg ñu dem ci jàkka yi di sabar déet nañ wax nañ nañ ma wax luñ bëgg néegub yàlla nga toog fa di wax laa ilaha illallah ñu ne dafa xaraam di julli ci yonent bi ñu ne dafa xaraam nañ ma wax lu dagan bu tëj jàkka ji moo dagan demal ca suratul baqara nga nga nga seet lay tëj ci lay tëj jàkka mooy lan ba wasaa fi xaraabiha <laughs> ah yàlla ni ñuy tëj sama jàkka yi ba pare di dox ca pet ya nag bañ ko ca dugg yàlla ñu ñu lancé naa leen defi mu ngi ca suratul baqara wa saa fi xaraabiha kon zikkar yaango tariqa zikkar la mooy azkar yoo xam ne da koy tudd tariqa boo gis nag azkaram ya moo tax tariqa bi di dox buñ ko noppee def rek azkaram yi tariqa ba fay tarixatu tijaaniya bii nag Cheikh Seydi Ahmad Tijaani indi jëlee ko ci maamam sens bi mooy askaaram dafa yomb moo gën a yomb awraat ci tariqa yëpp tariqa moo gën a yomb awraat ci tariqa yëpp ma jël ci benn boo xam ne moo jiite tariqa tijaan muy tariqatul xaadiriya xam nga seen salaatu ala nabi ñaata la 600. subaa ngoon 600 maaxus bii bu Sëriñ Tuubaa bii xam nga seen awraat ñaata la salaatu ala nabi bi te looloo gën a tuuti de waaw ah, kañ yow nga am 100 istixfaar 100 salaatu ala nabi 100 laa ilaaha illallah 100. Seydina Cheikh ne mu jub jamono it yee day bari benn nit ñi dootuñ tal awraat yu bari yi moo tax maamam jox ko li ci gën a dugg dóomu xam nga tarixa bi bàcc ko dem sa yoon lëjëlul kenn laazim cinq minutes dix minutes nga dem sa yoon wazifa budut yi xew léegi ci jàkk yi yii moom taxul ñuy wax astaghfirullah as malasi la sëñ Baye Abdou wax na ci bataay yi sëñ Babacar si Abdoulaye wax na ci bataay waaw di ko diibal diibal ba mu ëpp baaxul kenn du ko def vingt minutes mën nga ci wasifa dem sa yoon lum la lum la yàqal te dinaa ñëw ci awraat yi fi mu tàmbalee ak fi mu yem muxtaar mi daruri bi ba ba muy tudd fay dinaa ci ñëw léegi muxtaar bi daruri bi bépp muy tudd fay nga xam ne kon boog am nga large de temps pour def ko balaa moo tudd fay bu la rawee it ngir da ngaa am ngant nga fay ni julli waxtu yu juróom amee muxtaar am daruri noonu la lazim bi amee muxtaar noonu la lazim bi amee daruri heure de pointe ak heure boo xam ne heure ngant la bismillah kon loolu moo di laazim mooy gannaaw yéene jàng fatiha laa téeméer salaatu ala nabi téeméer muy salaatul fatiha waaye wala li ma la waxoon nag jël salaatu ba la neex laa ilaha illallah téeméer nga ne sayidina muhammadun rasulullahi alayhi salaamullah inna allaha wa malaikatahu ni ñuy laazime yaakaar naa ñëpp xam nañ ko wala ma jaar ci boo defee faatixa gannaaw yéene ba noppi foofit nag boo ñëwoon rekk fàtte faatixa tëb rek dal ci istixfaar salaatu al salaatu ala nabi laa ilaha illallah du tee sa laazim wér na te doo ko jàngal bu dee fàtte la sa laazim wér te doo ko jàng yooyu yegg see guñ ci waaye laazim bi mooy faatiha benn yoon gannaaw yéene istixfaar mooy astaxfirullah téeméer salaatu ala nabi wala salaatul faatihi téeméer laa ilaha illallah téeméer laazim jeex na astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum nga def ko fanweer muy 30 salaatul faatixi foofu moom salaatul faatixi rek moo fa valable moo tax taalibe Tijaan foog nga mokkal salaatul faatixi salaatul faatixi 50 laa ilaha illa allah 100 jawharatul kamal 12 soo mënul jawharatul kamal nga remplacer ko ak vingt salaatul faati ba ba ngay mokkal jawharatul kamal léeg-léeg nga dégg na ku ne yaa dayaanu am na fii ci réew mi ñu ko doon wax 65 yaa dayaanu waaye ñi ko doon wax ñëpp dee nañ alhamdulilah rabbil alamin amaa ah, la ko wax tarixa bi du yëfu jàmbur du yëfu yoo xam ne yaa ko moom ba lu la neex dugal ci toujours dama koy wax kuy fo génnal tarixa bi bul fowee tarixa bi tarixa bi du fowukaay wala jàpp say mathématique rek yaakaar ne mën ngaa def ay chiffre ay de yooyu yëfi caaxaan la xanaa ngeen baal ma ci waxin wi saaga ndey wi gën a bon boo ko calculer woon mu nekk turu yàlla maa la ko wax ci ko xam chiffre laa wax ne moo tax yàlla bëggul kuy saaga ndey laa yuhibbu llaahu aljahra bi suui min alqawli illa man zulim ndax saaga woo saaga turu yàlla la moo tax moo tax yàlla bëggul kuy saaga laa yuhibbu llaahu aljahra bi suui bi suui illa man zulim saaga woo de chiffre rek mu jox la turu yàlla léegi yow nag nga jàpp say chiffre di dugal ak génnee rek benaan 65 yaa day yaa nu mën naa remplacer 12 jawhara yi ba tasaare woon ko fi am benn taalibeem bu ñëwoon fii fii boobu fii ci suuf garabu mbuum moo fa nekkoon ñëw wax ma ko ma ne ko diw tailleur la woon yàlla na ko yàlla yërëm ma ne ko yàkki la ko wax yëpp. bu ngeen ko tuubut léegi ngeen dugg bàmmeel ma ne ko tarixa bi du fowukaay Seydina Cheikh dafa ni képp koo xam ne mënuloo jawharatul kamal walla nga am ngantal njàpp pour jàng jawharatul kamal nang ko remplacer ak vingt salaatul fatihi loolu maamam moo ko ko jox bi lisaanihi ci gémmiñam la ko ko yonent bi joxe waaw gémmiñ gudut gémmiñ yonent bi mën naa wax lu gën a valable loolu yow nga bëgg daraja ak mbooloo rek tax nga naan 65 yaa daya nu mën na ko remplacer moo tax it kenn du ko def tarixa bi bu ci kenn dugal si yëfi bopp moo tax Seydina Cheikh daan wax ne churutu tariqati li tariqati laa li cheikhi nee na chartu bi tariqa bee ko moom sëriñ si moomuñu ko aywa looloy wadifa wadifa Seydina Cheikh mu ngi koy jot ci ñeenteeli ak gannaaw laazim ak xadaratul juma bi muy jot maqam boobu nag li lay wan ne bi muy jot wadifa ak laazim ci la yéeg ci maqaamatul xatmiya ak katmiya moo lay wan dooley laazim ak wadifa moo lay wan dooley wadifa ak xadaratul juma bi ko jotee rek la yéeg ci maqaamatul xatmiya ak katmiya biñ ko laajee xatmiya Seydina Cheikh ne baatu xatmiya mu ne mu ne mbooleem awliya u yëpp ci la ñuy naanee ba yowmal xiyam te duñ xam fu mu yem ñu ne ko katmiya mu ne katmiya man mii di wax ak yéen sax xaw ma ci dara ku sama maam xamu ko mu ne ko maqaam buñ nëbb ci man la man sax xaw ko kenn ko xam mooy sama maam rasulullahi sallallahu alayhi wa wax ci xatmiya bi ñii wax ñëpp ci xatmiya bi la ñuy wax waaye katmiya bi kenn mënu cee wax xatmiya bi mooy xaqiqatul muhammadiya katmiya bi mooy xaqiqatul ahmadiya xaqiqatul muhammadiya waxkat yëpp ci la ñuy wax te duñ bàyyi ba yowmal xiyaam waaye ahmadiya bi kenn xamu ci dara ku dul yàlla ak yonent bi yooyu maqam la yoo xam ne yàlla daf ko réserver pour yonent bi ak dina Cheikh pour ëllëg bés pénc waaye du pour fii xaju fi moo tax Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu indil ñu nag laazim wasifa xadaratul jumaa muy ñett yoo xam ne moo fonde tariqa bi laazim wasifa xadaratul jumaa mu ne wasifa mbooloo koy def mu góor mu dellu ca rijaalun ja boo gisee yàlla tuddul jigéen foofa jigéen du wasifa ci kaw moo tax tarixa bi dara du ci hasard rijaalun laa tulhiihim pourtant jigéen day dem jàkk waaye lu tax waxul rijaalun wa nisaa innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal qaanitina wal qaanitaat lu tax bi muy wax fii waxul dugalu ci jigéen ñi mu ne rijaalun ndax wasifa ca kaw góor a koy def ay góor a koy def bu dee individuel individuel la nag da ngay jublu xibla charte la nga jublu xibla su fekkee tukki woo nekkoo ci tukki nga jublu toog toog yi ni koy julli jublu la su fekkee mën ngaa toog soo mënul toog ci suuf nga toog ci kaw waaye boo yeggee ba ci jawharatul kamal nga wàcc ci suuf wala nga remplacer ko vingt salaatul fatiha waaye jawhara kenn du ko jàng fekk yaa ngi yéeg ci dara loolu beneen affaire la dinañ ci ñëw ca fin ba li tax jawhara incarné orma yooyu ndax jëmmi rasulullahi la te rasulullahi jëmmam fokk nga ormaal ko par la force la moom yonent bi sax mënta ñàkk ormaal jëmmam lu muy simple simple simple simplicité mi yeggu ci mu bañ a jëmmam ji ndax nekkatul jëmmam ji jëmmu borom bi la ndax xaqiqa baa tax kon laazim kenn mënul nekk tiijaan te doo laazim moo tax Seydina Cheikh bi mu jotee tariqa bi dafa wax ñaari doomam yooyu Mouhamadul Kabir ak Mouhamadul Habib ñëw mu ne leen maa leen jur waaye lii may sàqa mi mooy lii ma yore bañ askalelee ko tariqa bi muy tariqatu ya ma di ko liggéey maa leen jur de duma leen ko imposer su ngeen bëggee jël su ngeen bëggul ngeen bàyyi su ngeen nangoo charte yi ngeen tënku ci waaye day li ma leen di jur jur jur jur su ngeen jëlul tariqa bii du ngeen nekk ay tiijaan waaye du tee maa leen jur nag xanaa fii la fii honnêteté fii la yem li maa leen jur ci sama ndigg man Seydina Cheikh waaye li ma leen di jur jur jur su ngeen jëlul tarixa bi du ngeen nekk tiijaan da ngeen nekk nag ay jullit yu wér waaye du ngeen nekk tiijaan xamal leen ko ba mu dugg ci seen bopp mu ne leen dem leen booyal leen moo tax dina Cheikh ne sama tarixa bi kenn du ci forcer kenn kenn du ci propagande kenn ndax koo ci forcé ba mu dugg ci wala nga propagande ko ba mu dugg ci te waxoo ko lii chartu tarixa bi wal iyaazu billahi mu génn Seydina Cheikh nee na buy génn yàgg moo may ànd yow mi ko propagande ba mu ñëw mu ne buy génn yéenay ànd génn moo tax doom bàyyi du ci propagande doom jabar du ci propa jëkkër du ci propagande jabar sëriñ du ci propagande taalibe ñu ne na Cheikh nooy def mu ne del wérd rek sama lonk gi gum nar a jàpp leeru tarixa bi mooy tas nga noyyi ko noyyi gi mooy lonk gi gis nga booy laazim yow laazimatoo de li ngay laazim yëpp leer lay doon leer gi day tas ku war a doon tiijaan rek dana ko noyyi moo tax boo demee ca fàkkeetu tulaab Seydul Xaaji Malik ne fi nga laazimee boo noppee boo ko mënee toog fa 30 minutes leer gi wàcc ci sa kaw soo jógee dem du tee leer gi day wàcc foo mën a sikkaree rek leer yi dañuy jógee asamaan di wàcc si ndax yaa leen woo soo toogee nag ñu wàcc ci sa kaw moo tax boo demee it ca fàkkeetu tulaab Seydi Hajji Malick ne boo sikkaree ba noppi lu mu gàtt gàtt na nga toog trent minutes door a naan ndox soo ko defee sikkar ba noppi naan ndox day fay leer gi te booy sikkar seetaane daf ciy rax pour nga mar gisoo booy pare lazim rek mar ngay njëkk def contraire bi nag bu ñu la joxee ataaya mën nga naan bu ñu la joxee café mën nga naan ndax dafa tàng nuurun ala nuurin la leer ci kaw leer la bu dee ndox mu sedd da koy fay moo tax mën ngay lazim ñu jox la ataaya nga naan mën ngay laasim ñu jox la café nga naan yooyu yëpp dagan na waaye bu dee ndox mu sedd tegal na le ba mu am 30 minutes nga door a naan gis nga différence bi moo tax loolu moo di laasim werante nag bari na ci waaye jarul werante xam nga lu tax moog niyee yam xabdu ak sadlu jarul soow waaw est-ce que xabdu day day yàq julli est-ce que sadlu day yàq julli waaw kon lu ci jar coow def nii ak def nii benn ci yàqu ci julli kon avancé bu mu la tardeel ñaari laazim yi tamit muy suba ak ngoon yëpp ci gémmiñu Seydina Cheikh la jóge te daan na ko defit nag laazim suba laazim ngoon wadifa suba wadifa ngoon mu des nag cosaanal tarixa bi benn laazim la woon ñi cosaanal tariqa bi nekkee woon onze jawharatul kamal ca jawahirul maani bu njëkk ba seydina cheikh santaane woon ñu suul ko te am ñu ko loon yóbbaale onze fekk soppeeku na nekk douze looloo indi laazim bi ñaar ak benn waaye ñaar yëpp wér la boo laazimee Seydi Hadji Malick daal bañ ko waxee dafa kuñ ci doon may ñaari junni ak benn junni booy jël yaakaar na ñaari junni yi ngay jël de kuñ ci doon may deux millions ak un million booy jël waaw kon kañ jëlal ñaar yi rek wàññiwut dara boo defee ñaar yi wàññiwut dara am un million ci ngoon si si suba gi am un million ci ci ngoon si moo dàq rek am un million ci suba gi toog dëgg walla du dëgg jeex na waaye jarul werante ñaar la wala benn la jarul werante ñaar yëpp wér na kiy def ñaar wér na kiy def benn wér na mu des nag yow mi tënku ci kuy def benn benn mooy sa farata mi tënku ci kuy def benn laazim astafurlah benn wazifa laazim bi moom ñaar la moom ala kulli xaal wazifa bi moo am werante waaye laazim bi moom ñaar la gis nga sew sew boobu wazifa bi moo am werante benn moo sax ci su ci ngoon rek ñii ne benn ci suba benn ci ngoon waaye ñaar yëpp dina Cheikh def na ko waaye laazim moom ñaar la de dëgg la wala du dëgg ñaar laazim la de wasifa wa mooy benn ci ngoon waaye laazim bi moom amul fii laa aju amul fële laa aju ñaar la suba ak ngoon ku aju ci kuy def benn wasifa benn wasifa bi mooy safarata ndax nit dopp sëriñam ki ko ci kuy def ñaari wasifa comme Seydil Hadji Malick suba ak ngoon ñaar yi mooy sa farata ba léeg-léeg nga gis taalibe Tidiane bu aju Tiwaawoon bëgg lu nooyi ak lu neex tax di def benn wasifa tegoo ko fenn yow taalibe bi aju kër Seydil Hadji Malick fenn nga ko tegul ndax ëppoo daraja Maodo gënoo ragal yàlla Maodo ëppoo jot Maodo te Seydil Hadj malik ñaar la daan def suba ak ngoon te mu ngi bëgg a bari nag te ñu ngi koy véhiculer aju ci kër Seydil Hadj Malick ba pare ne waa benn bi rek doy na c'est faux du dëgg ndax Cheikh Umar ñaar la daan def suba ak ngoon te mooy sëriñu Seydi Hadj Malick jëlee ko ci Cheikh Mohamad al Ghali Cheikh Al Hadj Omar balaa muy dajeeg Cheikh Mohamadul Ghali benn wasifa la daan def par par bés bi mu dajeeg Cheikh Mohamadul Ghali la jël ñaari wasifa yi ci Cheikh Mohamadul Ghali te dina ñëw léegi ci biir wax ji Cheikh Mohamadul Ghali wax naa leen ne Cheikh Sidi Ahmed Tidiane doy na sëkk mu ne huwa xalifati moo may doon ñu dem loolu moo di laazim wasifa bi ñaari yoon la muy suba ak ngoon kuy def benn benn mooy sa kuy def ñaar ñaar mooy sa leer na xadaratul juma ñëpp d'accord nañ ci bokk ne ajjuma lay doon gannaaw tàkkusaan lay doon kenn mënu ko def avant tàkkusaan kenn mënu ko def après timis diggante tàkkusaan la gannaaw bi nga sëlmalee tàkkusaan ak timis loolay xadara mu desit nag bi Cheikh Seydi Ahmad Tidiane ne bu ngeen di wadifa ba toll ci juróom-ñaari peru jawharatul kamal yonent bi day ñëw ànd ak saxaaba yi ak Seydina Cheikh ak ñi mu am gars ne fu ñuy toog ñu ne ñoo malaan mi loolu taxul ñu di ko lal de xanaa kañ bu doon sax looloo tax ñuy lal malaan mi civilisation yeggul ci ñëpp toog nga toog ci digg bi waaw nañ waxante dëgg civilisation sax yeggul ci ñëpp toog rek nga ne ñëw wàtt ci digg bi toog loolu kay civilisation sax yeggu fa te yonent bi ñëpp xam nañ ne ñam doon dundee bi mu génnee àddina noon la continuer te fu mbooloo mos a yem fa la daan yem dëgg la wala du àddina bi yëpp yaakaar naa ñiy weddi sax d'accord nañ ne yonent bi fu mbooloo mos a foofa lay yem nit ñi ñooy yëg ne yonent bi ñëw nañuy ñuy di wëlbateku di wëlbateku ba géewal ko masul xuus mbooloo waaw kon danañ lal malaan yoon bi ñëw ne wàtti ci kaw malaan mi malaan mi du pour ñoom ñiy bañ malaan malaan du cosaan ci wadifa du cosaan ci xadara lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko dicté Seydina ndax fa ba nekk tey ay mberkel boo demee ba léegi fees yéen ñi fa dem xam ngeen ne mberkel yaa nga fa am pagay raawat kon bu njëkk nuñ meloon am pagay mberkel mooy doomu fas ak mbaam ñooy yenu sax bagage yi ndax fees ni mu bindoo Seydina Cheikh yàlla ko may oto du fa dugg ndax mbedd ya oto xaju fa mberkel rek a fa xaj fees ni mu bindoo oto du fa dugg Fès ancien laa wax de Fès nouvelle moom capital la comme moo dàq Dakar Fès nouvelle waaw mënoo fa for bant Fès ancien bi fa Seydina Cheikh ne foofu tabarkal la mbedd yaa xat rek mais dafa set wecc fa la ñoom Moulay Idriss ak ñoom ñëpp fa lañ nekk oto du fa dugg borom bejjaaw bu rafet bi yim fa mujj dem yëpp ci chariot puus puus lañ koy teg puus ko alaaji Abdul Aziz Dabba waaw kon loolu beneen mbir la mujj gi neefare mooy dem cabinet mberkel yi dafa daan bari te leeru sikkar ak leeru jawharatul kamal warul wàcc fu sobe am yonent bi digal dina Cheikh ne ko nañ ut malaan di ko lal malaan mi pour leer gi la waaye du pour gan yi gan yi duñ jël espace yonent bi buy ñëw soxlawul espace lu espace diggante nit xaj xaj na fa ndax ci leeram lay ñëwee bu bëggee nga gis ko nag mu doon jëmm ba nga koy weddi yow mi may déglu wan ma fu jinne yi di toog te jinne yaa ngi fii ak ñun booy génnee ci mbedd bi ñu ngi ne xus jinne yi ñu ngi ne xus ci mbedd bi rawati bu timis di jot nii ñooy raw taw bi moo tax suñ mag ñi yal na leen yàlla fay bu timis daan jot ñu ne xale yëpp nañ fattu ji parce que heure boobu la jinne yi di wàcc dañuy mel ni taw te doo leen gis te taw bi pourtant c'est palpable mu ngi mii di taw gaa yaa ngi yor seen palasoor ndax lan bañ a tooy te jinne yi ñoo ëpp nu ñuy wàccee taw bi te doo leen gis ndax soxlawuñ espace soxlawuñ espace te pourtant ñu ngi vivre di dund ak ñun waaw ni yàlla bindee ñooñu gisoo leen waaye waaye bu rasulullah di ñëwit doo ko gis xanaa mu bëgg nga gis ko mu wan la boppam yal nañ ca bokk waaye malaan mi beneen bi tamit symbole la tey xadaratayni moo tax dañ bëgg nga di ko lem nii ba yegg ci juróom-ñaari per firi ko bu dee ca fees ñoom duñ ko sax lem dañ koy bàyyi fële Medina Baye de dañ ko daan def sax ñoom fële dañ koy bàyyi buñ duggee ci laa ilaha illallah ba muy waaje jeex rek ñu indi ko sànni nga xam ne buy jeex rek ci jawhara bi la ñuy dugg waaye nag inda buluuxi sab'a summa nuqil Maodo moom nee na mu jëlee naa ci Cheikh Umar mu jëlee ci Cheikh Mamadou al Ghali nee na su ngeen yeggee ci juróom-ñaari per bi rek firi leen ko xam nga lu muy firi lem bi mooy tayyul ardi àddina juróom-ñaari monde yi lañ la lemal firi bi mooy firi nga yëpp ci symbole yi la bokk ak ya ko tax a jóg waaye gan ñi taxuñ koo jóg li Seydina Cheikh ne buñ yeggee ci juróom-ñaari jawhara yonent bi day teew ak saxaabaam yi nga di ko weddi yow mi nga xam ne danga ne loolu mënul nekk delloo naa la ci alquran subhaanallazi asri bi abdihi laylan waxul nahaaran min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarak naa xawlahu lu tax li nuru yahu min aayaatina kawtéef la ña dee woon ca maam aadama ba ci moom yonent bi cent vingt quatre mille yëpp yàlla dajale leen li nuru yahu min aayaatina ci sama kéemtaan yi la ma bokk man yàlla ka defoon loolu moo fi ne ba tey di ko def lu tax innahu huwa samiun basir waxoon naa la ci njëlbeen sax ne la di gis yonent bi moom kooku alkaande fa la yem ak ñi wax ne gis nañ yonent bi lu jiitu Seydina Cheikh loolu yëpp waxoon naa la ko ca waxtaan yu njëkk ya kon nañ dem bu dee wazifa Seydina Cheikh dafa ne bu ñegsee ci juróom-ñaari per yi ci la yonent bi di teew ak i saxaabaam muy xulafaa u raashidiina yi Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Ali ak Seydina Cheikh ak ñi muy ànd mu ne bu dee xadaratul juma mbooloo koy def waaye du ñu lim foofu amul lim léeg nga gis ñuy lim nag bul weddi waaye du lu wér ci tariqa bi mbooloo du lim mbooloo ci waxtu la ñuy boo demee ca euh, boo demee ci téere Cheikh Al Hadj ba la ñuy wax rimaax nga dem ci muñetul murid ñëw ci fàkkeetu tulaab ak mboolem kutubu tarixa bi yépp ba ca kaasiful albaas mboolem kutubu tarixa bi téere tarixa bi kenn moo ci indi mbooloo muy lim mbooloo muy muy muy def une de temps kenn ko ci indi mooy Cheikh Sukayri ca kashful hijab moom rek moo indi saa falakiya mooy une de temps kon mooy une de temps amuloo xadara bu dee mbooloo soit clair na leer de ñi ci des ñëpp xam nga lu ñu indi une heure ba ci Seydul Xaaji Malik une heure trente la indi booyetul mustafid une heure la indi rimaax une heure trente la indi ñi ci des ñëpp ci kutubu tarixa bi une heure lañ bind Cheikh Sukayri moo bind une heure de temps waaye dafa ne saa a falakiya bu fekkoon dafa ne saa a rek liggéey yi di def nii dina dagan wa ma amru saati illa kalamhil basar yooyu ay détails la waaye saa a falakiya wa kullun fii falakin yasbaxuun weer wee tax ak jant bi moo tax Cheikh Sukayri ne saa falakiya mooy une de temps kon wa naka lay wéree nga toog ci taatu jàkka ji ba mu des 15 minutes nga doon dugg di wax yu kenn xamul ah. li ngay toog ci taatu jàkka ji di waxtaan duggal ci jàkka ji nga def sa xadaratul juma wala sa wadifa kon wadifa xadaratul juma une heure de temps la. Seydina Cheikh nee na bu ngeen di lal malaat mi ne aouzu billahi min ashaytaani rajim mu ne yonent bi ñëw na moom aouzu billahi min ashaytaani rajim ñun ak rasulullah ñoo koy waxandoor ba ba muy jeex une heure de temps ci ko def une heure nag moo gën su fekkee du mbooloo nag Seydina Cheikh nee na nii la ko ko maamam joxe gannaaw yéene mbooloo ak individuel ñoo ci yem gannaaw yéene mooy intention du noonu la ko tubaab di wax ah yéene fatiha nga jàng fatiha astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ñetti yoon trois fois nga jàng salaatul fatihi trois fois muy ñetti yoon nga ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin nga tàmbali nag bu la neexee nga ne laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mille mooy lim bi gën a tuuti mille deux cent baax na mille trois cent baax na 1500 baax na 1600 mooy lim bi gën a féetee kaw kenn ka sañu ko weesu ci lim individuel mooy yow kenn boo toogoon di xadara boobu la Cheikh Al Hadj Omar tànn nag ne ku aju ci man na ngay def 1600 su la neexee laa ilaha illallah yëpp nga def ko 1600 su la neexee nga bàyyi laa ilaha illallah 1600 yëpp nga def ko allah allah allah allah. waaye Cheikh Umar nee na Seydi El Hadji nee na nga variété ko moo gën 800 laa ilaha illallah ne Seydina Muhammad rasulullah alayhi salaamullah indi allah allah 800 nga boole leen muy 1600 nga tëj bu dee individuel la bu dee yow individuel yaay xool sa làmmiñ ak sa gaawaayu làmmiñ mënoo julli tàkkusaan rek def ko dem doxi say soxla déedéet loolu tuddul xadara de am na ñu koy def nag julli tàkkusaan laazim wasifa xadara dem dex seeni soxla bu la neexee nga laazim bu la neexee nga wasifa waaye xadara moom mënoo ko def lu dul lii may wax mbooloo une heure de temps te dañ koy nattale ak jant bu so fi ñuy paree ak jant bu so minimum na nekk cinq minutes pour ku yeesal njàpp ñu doxale moo tax ñu doxale fa ñaan le temps ñaan gi di jeex ñi yeesal njàpp yeesal njàpp ñu noddu timis julli yow mii def individuel yow ci sa bopp kañ nga sañ def mooy nattal sa gaawaayu làmmiñ yaay xool nag diggante fi ñu koy defee ak jant bu so est-ce que 20 minutes mën nga ko ci def est-ce que 30 minutes mën nga ko ci def yaay xool rek fu sa làmmiñ toll nga natt ko def ko boo paree même boo ñaanut toogal 5 minutes ñu noddu timis wala timis jot nga julli timis waaye sañuloo ko def dem doxi say soxla gaa yi nag dañ koy def de waaye wérut ci tariixa bi wérul de wérul de sa soxla moom bu ko àjjuma xam yow taalibe tijaan bi sëriñ Babacar Si Cheikh Al Hadj Aziz nee na daan na wax ne ah ku yàkkamti ba bàyyi fi suñu wasifa wii ndax dangaa yàkkamti dem doxi say soxla mu ne ñun daañu wasifa ba noppi doxi suñuy soxla ci sa kaw soxla suñ soxla faju te sa bos du faju xam nga loo ciy déggee tarixa bi awraat yi terewulaa doxi say soxla xanaa kañ yow yaa am leneen lu ëppi soxla waaye lu mën a doon boo fi bàyyee tarixa bi dem di ko doxi doo dem kon loolu mooy xadaratul juma kenn sañu ko def lu dut ajjuma ajjuma it kenn sañu ko def lu dul jullit danga nga julli tàkkusaan nattale ko ak jant bu so leer na waaw kañ mu des nag chartu tariqa bi lii tax nga nekk tiijaan fanweeri charte la damay indi yi nga xam ne boo ci defee benn dog nga ci tariqa bi loolu moo gën a nekk farata yi nga xam ne boo ci def benn immédiatement automatiquement tu es exclu exclure génn nga expulsé génn nga génn nga yow dangay ngay seet lu la indiwaat waaye génn nga bokkatoo nekkatoo tiijaan nañ ci bàyyi xel na bi ci jiitu mooy Seydina Cheikh moo wax maamam yi sart yi yëpp yonent bee ko ko jox de dinaa ñëw ci yi nga xam ne nag damaan mooy garantie yi ko Seydina Cheikh laajoon balaa mu koy jox charte yi Seydina Cheikh daf ko laax ne pour nga jox ma charte yi ma nangu yow it dama lay jox ay charte boo ko nangoo ma jël boo ko nanguwul nga bàyyi ma yonent bi ne ko yan mu ne ko ku bootu ci sama ginnaaw du dem jahannama mu ne ko nangu naa mu ne ko ma nekk sawetaasu xeet bi mu ne ko nangu naa mu ne ko sama tarixa bi bokk ci tarixa yi nekk tarixa bi nga xam ne ku ci dugg mucc mu ne ko nangu naa yonent bi door ko jox charte yii nag ne ko kuy tënku ci sa tarixa bi na ko ci charte yi wa illaa génn na bi ci jiitu mooy boo ko jàppee doo ko bàyyi ba ba ngay dee ndax ku ko bàyyi àll ko ku ko bàyyi koo bàyyi yàlla ak yonent bi nga bàyyi ku bàyyi yàlla ak yonent bi dem jahannam mooy lan jàpp nga ko génn nga ci mbedd mi toj nañ sa bopp naan la xuraafaat la bidaa la nangam nangam nga ñëw rek ne ah man daal kon affaire bi bàyyi naa ko waaye Seydina Cheikh ku am patience la danaa la boo feek dellusiwaatoo ci nene boo ci dellusiwaatee ma fat la boo ci dellusiwaatut mu ne gannaaw goo làqu danaa la làqar ci bàyyee la ak yàlla mu tàbbal la jahannama ndax ñaar nga boole fecc nga sa diggante wëllëre sa digganteek sa borom fecc nga wëllëre sa digganteeg jaamam te yàlla dafa ne wal yuufu nuzurahum foofu la tarixa dugge ku ne kenn du ko ñaan wal yuufu dee leen matal nuzurahum seen yéene yi beneen bi ci des nga di ko jëlee ci nit te boo ko bàyyee al ko wa awfu bil ahdi innal ahda kaana masuulan yàlla ne matal leen seen kóllëre yi ndax dama koy laaj ëllëg nga kóllëranteeg nit ba mu jox la tarixa bi nga ne ko fa wàcc yàlla ne boo liggéey ma poñe la laaj la lu tax kon ñu toj sa bopp ci mbedd mi nga ñëw ne ah kon affaire bi bàyyi naa boo koy def génn nga ci tarixa bi boo koy def génn nga ci tarixa bi maara day taali wala nga ziyaara ziyaara istimdaad wali bu dund wala bu dee bu bokkul ci tarixa bi ziyaara istimdaad lañ wax nag islaam bu ubbi buntu mbokkoo tarixa di ko tëj te yàlla ne innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum yéen ñi gëm ay mbokk ngeen nangeen rafetal mbokk gi mu lislaam di waxee noonu ba pare tarixa ñëw di ko te déedéet yaa déggut bu ziyaare benn wali bu dund wala bu dee bu bokkul ci tarixa bi mooy ziyaare istimdaat la ñuy tere yow miy wax istimdaat ak man mi koy wax te yow sa wolof leeru déggoo wala xamoo luy istimdaat istimdaat moo di sàkku xettaliku ak yokk ca yàlla ci wali yu budut bu tiijaan yow mi jàpp tarixa bi xam nga lu tax waaye waaye jigéen du am ñaari jëkkër jigéen du am ñaari jëkkër lii rek la waaye terewuñ la nga am mbokk ca Touba màggalu tuubaa ngi nii di ñëw ñaata tiijaan ay dem Touba te te duñ tiij te duñ murit ah man mii di wax du dégg ngeen ba tàyyi ma ne benn xarit la am ci kaw suuf mooy Sidi Maxtaar Kunta lan la du xaadir la lu mu yàq sama digganteeg moom te man tiijaan la sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu ñëpp d'accord nañ ne benn xarit laa amoon te xaadir la woon muy Ibnul Arabi li moo jur Bachir li oustaz bashir li bi nekkoon Pikine lu mu yàq digganteem ak Serigne Babacar Sy beneen bi ma nangu ci làmmiñu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mu ne Serigne Cheikh ma Cheikh ma Samba Mbacke xaritu Seydi sëñ Babacar Sy la woon daf ko daan seet sëñ ma sàmba Mbacke lu sëñ Touba bind moo ko maas sëñ Mbacke bu soo vérifier aaroot bi ak naxo bi ah léegi la bind neex rek comme njot rek bind génne waaye mag ñi luñ mës a bind jox ko seen taalibe yi ñu formé ñu càmbar ko. moo tax murit yi nga dégg ñu ne lu sëñ Touba bind rek sëñ Massamba Mbàkke commence xalifaam bi maa ngi koy nuyuwaale bu baax di sama xarit di sëñ mustafaa ma Mbàkke waaw baayam euh, magam moo jur Abdou Aziz Mbàkke bii ñu tuddee alaaji Abdou Aziz mu nekk fii ci géejawaay ngeen xam ko sëñ du Faati Xari Mbàkke ko jur sëñ Modou Faati Xari Mbàkke sëñ Massamba Mbàkke ko jur sëñ ma Mbàkke ak sëñ Touba bokk ndey ak baay waaw terewuñ la nga am mbokk ca Touba nuyu ji ko màggalu Touba ngi nii di ñëw ñaata tiijaan a fay dem te duñ ay ti ay murit lum yàq ci seen tiijaan ziyaara istimdaat la ñuy tere kooku nag ku ko def moo xam ci wali yu bu dund la wala ci wali bu dee la bu bokkul ci tarixa bi yow automatiquement immédiatement dog nga ci tarixa bi ak ban kimmi kimmi mooy cigarette tuux booy tuux rek dog nga ci tarixa bi boo nee du ma tuux waaye damay log nga jël pon xam nga naar yi dañ koy def jël pon rek ñenn seen kii rek saañ ko ci diggante tuñ yeeg kii yi <laughs> ak ñu ko mën di muguñ rek boobu day dog nit ci tarixa bi am na ñoo xam ne fii lañ koy def ci gannaaw déegéej ji am ñoo xam ne dañuy yëkkati làmmiñ wi ron ko ci suuf bu mu ci mën a doon ku ko ci def dog nga ci tarixa bi xeetu pon la Seydina Cheikh wax ne sama taalibe bu mu ko laal waaw la Seydina Cheikh tere woon yëpp tey amu ci victoire te ba mu ko waxee ñëpp dal ci koom naan fu mu xaraamee fu islaam wax Seydina Cheikh daal benn baat la leen delloo ci alquran ñaari baat la leen wax min yahmuum mu ne xob bi ca xobu safara ya la bokk mooy tabaa liñ koy defaree min yax muum moom la yàlla di wax ci alquran min yax muum mu ne beneen bi ci des nag yàlla wax ne wala tulqu bi aydikum ila tahlukati bu leen sóob seen loxo yi ci lu leen di alag léegi nag àddina bi yëpp nangu nañ ni tabaa day alag nit dëgg la wala du dëgg léegi paquet yu bees yi sax ñu ngi ca def koo xam ne dafa tux bi alku alku mooy boo ko gisee rek màndarga ma mooy bàyyi lii boo ko bàyyiwut fii nga jëm dëgg la wala nga dugg fooy dugg ñu ne la defence de fumer no smoking en anglais défense de fumer mamnu anit tadriqin léegi fépp yëpp lañ koy bind arab bi bindal la mamnu anit tadriqin tubaab bi bindal la defence de fumer anglais bi leneen no smoking léegi dem nañ ba Europe ñoom ci seen bopp fii sax voté nañ ko assemblée nationale bi waaye ñun suñu loi yëpp buñ paree ca tribunal ya lañ koy def muy nelaw ñun voté nañ ko assemblée nationale de tux ci lieu public yi voté nañ ko de amende la léegi waaye kuñ ci amende bu léegi nag Europe boo dofee Europe ba tux ci lieu public yi ñuy tere cent euro daanu na bu dee Allemagne cent cinquante euro daanu na hôtel bi nga nekk sax yow di ko fay muy sa hôtel sañoo tux ci biir chambre bi bu dee danga nga bëgg a tux tuxkat nga da leen koy wax am na chambre fumeur <laughs> waaw waaw ñu yóbbu la ci chambre yooya ngay tux waaye chambre bi nga nekk yaa ko fay booy tux rek mu déclenché police yi ñëw fëgg monate la yóbbu kon Seydina Cheikh waroon nañ ko jox àllarba. ah gars yi bu ñu amoon sincérité ak honnêteté dañ danañ ko jox àllarba ndax ba mu koy tere ñëpp ko daloon ci kawam naan naar bi lu muy wax pon fu mu araamee tux fu mu araamee tey am na raison ci seen kaw loolu lay won ne huwa alqutbul maktum wal barzaxul maktum wa taajil aarifina huwa mu middil awliyaai shariful fatimi looloo la koy wan ndax loo tere trois cents cents ans réalité bi door a yegg si xam nga ni kooku xam na li muy wax ah trois cents ans quatre cents ans wala deux cents ans réalité li nga doon wax door a active xam nga ni kii kon am na keneen ku koy wax ok ñu dem moo tax loolu moo di laazim wazifa nag ak xadaratul jumaa indil naa la ko kon ñett yii mooy yi nga xam ne ku ko def automatiquement génn nga ci tarixa bi yàlla nañu ci yàlla musal mooy ziyaara istimdaad wali bu dund wala bu dee bu bokkul ci tarixa bi jëfandikoo póon moo xam cigarette la wala bu ñuy maq ah ak toog ba mu neex la nga ne yëf yi xuraafaat la banaa maara day taali ah day am day am yooyu yëpp nag dina Cheikh ne na ku ko def am nga sens pour dellusiwaat ubbil naa la sama bunt yi soo dellusiwaatee it ma raxas la ba nga set intégré waat la ci biir mbooloo mi mu ne waaye soo dellusiwut ma bàyyi la ngay gën di alko di gën di alko da ngay xal di ma xal di wat magay rek ca woy wa ba ba ngay dem jahannama ndax ku ko bàyyi yàlla ak yonent bi nga bàyyi maqaama yii nga xam ne nag waaw kañ dese nañ 30 minutes écart la ñuy arrêté wala 15 17 heures rek ñu arrêté sax surutu tarixa bi nag 23 la waaye ñetti yi jàpp leen mooy yi génne automatiquement nit ki ci tarixa bi yeneen yi ci des nag bari loo koy def dina tax maara deytaale cër yi nga waroon a am ci tarixa bi doo ko am ba it nag ah ku yàgg def lu ñuy tere booy génn da lay bett waaw hmm? ah, waaw ku yàgg def lu ñuy tere luñ sib moo tax tarixa bi Seydina Cheikh ci wattandiku ci naan Seydina Cheikh daf daan njaber dafa daan luxus daf daan nàngam waaw ki dem ba waxal boppam ne yàlla yéegal na ma ci maqaam ba mu joxoon yoon ci yàlla Suleymaan fam nun aw amsik bi xayri xisaab kooku alal dana ko jafeeti yoon ci yàlla boo ko weddee waaw yonent yàlla Suleymaan ku ko doon jox moom moom du yonent de wax naa ko na leer Seydina Cheikh du yonent waliyu la bi gën ci awliyaa yi waaye kay jox yonent yi moo jox awliyaa yi xanaa ñoom sëñ Souleymane Samb yii rek am nañ turu yàlla yoo xam ne boo ko laalee dootoo liggéeyi am na di waaye yooyu mag ñi soppuñu ko dégguloo së xalifa bii sëriñ Serigne Babacar Sy Mansour wax ko ci Thierno Saïdou Nourou nettali na ko ba ay yi ngeen dégg ndax moom Thierno Saïdou Nourou ko yar moo ko jox tarixa bi ku sa ñëw rek mu ne Thierno Saïdou Nourou loo jàmbat rek mu yëkkati sa jaada bi jox la loo jàmbat ba jant bi so nee na Thierno jóg dugg ci biir néeg bi rek ma yëkkati si jaada bi fekkuma fa dara xalifa bee koy nettali nettali na ko ziyaare Louga ñëpp dégg nee na ma ma yëkkati gisuma dara ma fëgg foofu yëpp gisuma dara mu ne Thierno Seydou Nourou ñëw mu ne ma ko ko ne ko góor yow Thierno li nga doon génnee fii yëpp foo ko doon jële bi nga jógee dugg ci biir yëkkati naa si bi fëgg gisuma dara lu ko Thierno Seydou Nourou too tontu boobu fi ma koy jëlee suma loxo bi bu dugg rek mu ñëw suma loxo bi bu dugg rekk mu ñëw. soxla borom mu ma jox ko mu dem mooy fam nun aw am sik bi xeyri xisaab waxoon naa la ko ci yoon ci yàlla Suleymaan man su ma doon may alaaji ma lay taal mii wala ma am njaay calculé naa bu yàgg ñaata laa koy may dugal ci poos bii rek génne jox ko li ma koy jox waaye yonent yàlla Suleymaan yàlla daf ko ne sañoo calcul ki ñëw di la jàmbat soxla tàggat naa soxlaam mu ànd ak sa loxo bi loolu lay firi fam nun aw am amsik bi xëyri xisaab lam la wax booy roof rek loolu la ngay napp boo génnee jox ko mu dem bu ca sa yoon nekk bul compter bul vérifier Seydina Cheikh it noonu la daan def sa jaadaam bi mu daan toog boo ñëwee rek Abul Abbas dama soxla nangam mu yëkkati jox la mag ñëpp ko doon na ci moom góor gi Paydar Diop bii Seydi Hadji Malick a koo tere ci Alaaji Cerno Seydou Nourou Seydi Hadji Malick moo ko tere yooyu yooyu xanaa ñoom boo demee ci tur yàlla yi ñuy wax daayiratul ihaat ak yooyu yëpp ñoom tabdil tabdilul xaqi tabdilul dafa am tabdilul sixr am tabdilul kiraamatil ayni am waaw kañ <laughs> waaye bul tëb rek ne tabdil dafa xaram déedéet tabdil ndeysaan yal na ko yàlla yërëm ngeen baal ma nag ngeen baal ma wax bi du rafet ngeen baal ma de ngeen baal ma sëriñ Maodo Sall ku baax la woon bu ndar alaaji Sall ko jur alaaji Sall ak sëñ Abbas Sall ñoo bokk ndey ak baay alaaji la doon mag mu ngi gaañu rek yàggut ndeysaan yal na yàlla dolli leeram te bàyyi fi xalifam bii di Mansour sëñ Mansour mooy taawam mooy xalifam moo ma daan wax mu ne ma eh, benn nit dafa xawoon bar bar nag benn nit moo fi ñëw xaw dafa xawoon ndër ndeysaan sama xarit la woon sëñ Maodo 88 lañ xamante ca Ndar boobu sax dëkkagul lew na boobu mu nga dëkk ca Daara ja fañ ko rob nii tey foofu la dëkkoon boobu ndeysaan mu ne eh, am na ku fi ñëw di ma wax tab tab tabdil tabdil ma ne ko bàyyi leen tabdil waat tabdul moo am <laughs> dem leen liggéeyi dem leen liggéeyi dem leen liggéeyi tëb duul am na waaye tab di amut <laughs> ngeen baal ma moo taxoon ma ne wax bi du neex xam nga lu tax ñu ne ci découragé ndaw du xëy rek bëgg yooyu da ngay liggéeyi Seydina Cheikh terewul daf daan commerce dafa am ñu utoon ñu di ko defal commerce ci la daan dund Seydi Hadj Malick nii daf daan def commerce Cheikh Al Hadj Omar Fouti daf daan commerce. sama sëriñ El Hadj Abdoul yéen ñëpp xam ngeen ne daf daan commerce amoon ay boutique fii ci Sandaga di béy ay tool sëriñ si koo ci gis bu commerce ruut mu nga ca tool ya waaye addiye yi taalibe yi di indi dañ ciy dimbalaate waaye duñ ko lekk mukk wax naa leen ko fii ba tey ñaata sëriñ ñoo ñaata nit na ñëw ci sëñ Touba wax ko ko Cerno Yaxya li nettali ma ko ñoom daawuñu dundee addiyay taalibe yi dañ ci daan dimbalee waaye daawuñ ko dundee seen ñaqu bopp lañ daan dundee Seydi Hadj Malick da daan commerce ñëpp xam nañ ko sëñ Abdoul Amine yal na yàlla dolli leeram nettali na ko bétaay yi Maodo daf daan commerce sëñ baaba kër si daf daan commerce booleek tool yi ah dégg nga Seydi Jamil bi may waxtaan ci moom dégg leen ko xana mu ne man rek maa am sens Eh, sëy sëy sëy sëñ Babacar si may topp bi sëñ Babacar di ji ak darajaam ja yegg bene melentaan way doj dox ca doju ngor wa yuqu wa yuqu tànkam ba sax mu ngi may sonal man Babacar fii ma toog mu ne fii ma toog ci Tiwaawoon melentaan way dox ca doju ngor wa yuqu mooy na mu yëkkatee tànkam di teg mu ngi may sonal man Babacar ak cër boobu yëpp mu nga ca tool ya déggoo li ma la waxoon ne Seydi Jamil nee na man rek ma am sens di topp bi sëñ Babacar si di ji di suul ca tool ya ca jak saaw kon ku ne sëriñ si amuñ métier dangaa yab sëriñ si rek te billaay sëriñ si ku leen yab ku yilif sa junniy morom du sa morom ñi làqu ci gannaaw Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi gannaaw guñ làqu woon gu dul moom taal ko okañ ah, kon Seydina Cheikh du njaberkat Seydina Cheikh du luxuskat Seydina Cheikh huwa min awliyaa illahi taala wa huwa mumiddihim okañ ah, kon nag ñu wéy kooku mooy Seydina Cheikh lii mooy awraadu tariqa bi wax naa la vingt trois charte la waaye pour nga pour nga bañ a gëlëm yow mi jàpp tariqa bi jàppal ne ñetti yii rek moo la mën a génnee ci tariqa bi automatiquement kon ya ca des nag wanteel ak moom moom Seydina Cheikh dem na ba bàyyi lekk suukar ndax dañoo xëy rek diaboliser ne suukar dañ ci dañ koy mooñaalee sàngara Seydina Cheikh ne kon de xaraamal naa ko waaye defal leen ma ci gëstu ñi ji def gëstu ji def gëstu ba mat ñaari at ñu ñëw ne ko dañ def nañ géstu waaye gars yi dañuy wax rek suukar kenn du ko mooñaale ak sàngara du dëgg mu ne ah yàlla taxoon ma ne xaraamal naa ko yàlla joojoo fi ne ba tey damay continuer di ko xaraamal ba ba may dugg bàmmeel suukar te man de saa yu may naan kafe def ci suukar am na ñu dul suukar nag Lamine Dieye ca France man dama koy xool comme dof du kafe suukar kafe euh, du ko suukar mukk ma ne ko ah Sidi Ahmed si bii bu Seydi Jamil moom it si yéen su bari duñ suukar kafe waaye man xam nga lu ma leen di wax dama leen di yéen si ngeen sant suukar si yéen suukar ngeen seen café bu yàgg man ay dara laa sant xay dara daray suukar amu ci <laughs> dañuy rey ba këpp ci suuf ma ne leen waaw yéen suukar ngeen seen kafe bu yàgg ndax suukar si asamaan si suuf si waaw kañ yéen moom seen lëpp baax man xay dara dara dara dara dara amu ci ci suukar defal ma ci suukar ba pare waaw waaw su ko defee euh, yooyu le nañ ci bàyyi xel weddi gu métti baaxul waaw nit loo xamul bu ko weddi moo tax Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi ku wattandiku woon na ku sunni yu woon na charia rekk la daan doxal dem na ba ci biir sartu tarixa bi ne la dangay ngay tënku ci charia ak sunna di jàng alquran ñaari hizib par bés kooku lii génn na sunna bokk na ci sartu tarixa bi da ngay ormal sa ndey ak sa baay wa bil walidayni ihsanan duggul ah? bokk ci sartu tarixa bi la bokk de da ngay ormal sa ndey ak sa baay doo xotti orma jëme ci ñoom nga ne nangu naa mu dugg ca bilwaali wa yi day ni ihsaanan ah mu ne la jullit ñëpp da nga leen di mbokkoo seen ay di sa ay seen jàmm di sa jàmm ci char ci charte ya la bokk waaw loolu duggul ci innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum mu ne la sa mbokk taalibe tiijaan yi bu leen lor ndax koo ci lor yonent bi nga lor xam nga lu tax Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi moo ne te lu mu wax dëgg la mu ne sama maam nee na ma sama taalibe bi jàpp sama tariqa doonte du shérif ci deret moo gën a jege shérif yi jàppul sama tariqa ñu moo leen gën a jege yonent bi dégg nga boobu Seydina Cheikh nee na sama taalibe bi waaw kañ sama yaay Juuf la sant d'accord mu ne sama taalibe bi tudd Seynabou juuf wala sama taalibe bi tudd Bachirou juuf sama rakk yaay la wala sama taalibe bi tudd colonel Cheikh Tidiane Diouf wala sama taalibe bi tudd Mamadou Diouf ca itali wala sama taalibi bi tudd Ama sa juuf ca Mbuur ñii ñëpp sama rakk yaay lañ waaw Ama Yaysa juuf moom moo ci gën a garaaw tur xam ngeen Ama Yaysa moom Ama Yaysa moom du turu dara ceddo piir la waaw kañ te jàpp na tariixa bi waaw ku moom rek laay jël exemple sama nijaay la waaye sama xarit la mu ngi mbuur sali waaw ama yey sa juuf xam ngeen ama yey sa amul daray lislaam moom ama yey sa leer ba léegi ama yey la tudd <laughs> ngeen amul mu boo noon Muhammad wala Mamadou sax nga ne bii kii na waaye ama yey sa ma maam Njaay xam nga ne ama yey sa moom lënt na bu baax waaw ama yey sa jàpp na tariixa tiijaan ama yey sa juuf Cheikh Seyd Ahmad tiijaan yi nee na ama yey sa juuf moomu jàpp sama tarixa bi xam nga du shérif moom juuf la sant ama yey sa la tudd nee na moo gën a jege shérif bi nasaboo ci yonent bi ci deret te jàppul tarixa Tidiane mais fa la garantie yam alaaji ma ni mu ne shérif bi nga xam ne shérif la xaqiqatan deretu yonent bi la yonent bi mooy maamam mu baasaratan waaye du tiijaan mu ne ama yey sa juuf moomu jàpp sama tarixa bi moo ko gën a jege yonent bi aka naqaree firi hmm, Seydina Cheikh lim ñu defal xamuñu ko aka naqaree firi maam Njaay aka naqaree firi xam nga noo koy déggee aka neex a déggit nag xam nga noo koy déggee aka neex a dégg mu baal ma nag mu baal ma mu baal ma Farba Ngom lu mu bokk ak Macky Sall <coughs> mu baal ma mu baal ma rek Farba Ngom lu mu bokk ak Macky Sall président Macky Sall ma bañ ko sàllul dara Adama ak Awa lañ bokk waaye tey ku ko gën a jege Macky Sall président Macky am na bu ko neexee waaxu léegi dem pale gis ko bu ko neexee woo ko téléphone léegi. su président Macky di tukki ànd ak moom te bokkul ak moom dara la muy gis président Macky sax doomu président yi duñ ko ko gis lu mbokk bokk ak président Macky dara wa hakaza taalibe Tidiane bi nga xam ne moo jàpp tarixa Tidiane bii te du shérif Seydina Cheikh a tax mu nekk shérif <laughs> jeex na ci Seydina Cheikh lañ ko aj moo tax mu ne keroog bi ma yéegee ci maqamatul xatmiya 15 minutes ma dese mu ne keroog bi mu yéegee ci maqamatul xatmiya ak xatmiya ne na keroog la ko yónnante bi jox garaatu képp kuy walla du zina mooy ko juddu hors mariage mu ne bu jàppee sama tarixa bi ma garanti ko mu nekk sama doom ma dugal ko àjjana hmm. loolu xatmiya bi ak katmiya bi moo ko ko may moom rek a ko am it nag ci àddina bi du ma ci sori ndax bëgguma blessé ay nit yonent bi dafa am lu wax ci walla du zina mooy ku juddu hors mariage yonent bi dafa am lu mu ci wax yu baree baree bari yooyu du ma ci juddu ndax bañ a choqué kenn sama yoon newul ci yàllaa leen bind te won la niteeg dina Cheikh niteeg Seydina Cheikh ma wan la niteem rek basariyaam rek dafa xëy décréter bés ne képp kuy sama taalibe nag ma wóoral doom yi ñuy suul doom yi ñuy jur di leen sànni ne je ne suis pas d'accord ñu ne ko lu tax mu ne bàkkaar bàkkaar bi ak doom bi jotee wuñ dara lu tax nga jur ko di ko rey wala nga di ko sànni ci la woo ci la woo euh, ni ñu koy waxati ibnul arabi ci la woo ibnu arabi ne ko nag ma seytul doom yi ñuy sànni nga di leen récupérer xoolal loolu orphelin yi Seydina Cheikh a ko njëkke ibnul arabi la ko chargé woon moo doon récupérer ñi doom yiñ sànni Seydina Cheikh yor seen dund bu màggee mu ne bàyyi leen leen ñu dem buñ choisiree daal nekk tijaan ngeen def leen tijaan buñ choisirul nekk tijaan ngeen bàyyi leen ñu dem man dama doon bañ rek ñu rey leen wala ñu suul leen mu ne lu bàkkaar bi lu mu joteeg doom bi Serigne Cheikh Tidiane si ndeysaan keroog bi mu koy wax daf ko wax ba nga yëg ni dafa mer Cheikh mu ne péché bi lu jotee ak doom bi jotee wuñ dara nga am Serigne Cheikh moo ko doon wax mu ne nga am benn bàjjan bu tëxët bu nekk ca ndar rek xam nga ndar-ndar moo gën ñoo gën a tëxët ñoom ci li yàlla bind. day bi wala fa ko wax dañ ne tëxat doomu ndar dëgg la dëgg la dëgg doomu ndar tëxat ci ñoom la yem tëxat ci ñoom la yem sëriñ si am ne na nga am bàjjen bu tëxat rek bu dëkk ndar naan la wuy yenu ay loxo muy sama ndey fu ma jëm mu suñ xeet wi masuta masuta am ku jur doom bu judduwul ci yoon mu ne nga jël ko rek sànni ko wund yi di ko lekk ndax sa bàjjan bu tëxat boobu rek wala nga ubbi foos dugal ko ca ndax sa bàjjen bu taxat boobu wala nga rendi ko ndax sa bàjjan bu taxat boobu mu ne bàkkaar bi ak doom bi luñ jotee bàyyil doom bi mu dund loolu Seydina Cheikh ci njëkk a soow ci la waxee ne sama maam nee na nee na ma te wa maa yantiqu anil hawa lu mu wax yàllaa ko ko wax loo ku ma liggéeyal man Seydina Cheikh donte wala du zina la ma garanti ko ba dugal ko àjjana ñu ne ko nu mu lay liggéeyalee mu ne na ñëw rek ma ne ko may ma ndox ma naan bu tànqee rek ma garanti ko wala wëlbatil ma sama dàll bii wala jëlal bant bii toxalal ma ko li may wax na dama koy wax shukran lillahi pour wal leen ne yooyu du ay caaxaan Tine Mbaye taalibe maam borom Touba la alaaji Tine Mbaye mu ngi fii amookaat yal na yàlla dolli wéram ñoo àndoon màkka li may wax nii laajal Abdou Aziz Samb bu mbuur am na benn doomam mu ngi fii ci kër gi boobu yaakaar na toon mu sëy yaakaar naa nettali na ko fii ñëpp dégg ko moo tax sax ma di ko nettali waan pour wan leen ne yooyu du ay caaxaan ñu dem ba makk ci raw du yonent bi ci mbay ku baax la mu ne sama doom yëpp baax nañ waaye diw dama bëgg mu am boroom kër shérif nañ def dafa joxeel dog ñu ñaanal ko ndax mu am boroom kër ci rawdatun min riyaadil janna laa wax de fa lañ toog fa yónnent bi wax ne ku fa toog yaa ngi toog ci dëru àjjana yi keroog foofu lañ toog mu ne sama doom boobu damay ba comme joboot la du du moo tax ma turam ñaanal lal leen ma ko yàlla mu am jëkkër ci kaw suuf ma fekkee ko mu am doom ma teg ci sama bët xalifa Diallo nettali na ko fii imaam Moussa Guèye mii boo gisee moom rek laa dégg ko ku may wax ana ak Ablaay ba alaaji Chérif Ibrahima ndax man bi ma nee cëpp jógee màkk ci bis bi ci man defuma ci kër gi fii defuma fi deux deux heures de temps defuma ko fi buub samay bagage Ibra Gueye mii taximaan sama sofër bi moo ma jël maa Xalifa jàll ñu dem Mbuur kër Sali kër Abdou Aziz Sàmba ca Mbuur ma def fa une semaine door a ñibbisi bañ rek ku ma ganale bi ñuy dem ci yoon bi man xalifa xalifa ak tiin mbay bi ñu demee ba génn bay dugg sali ma gis benn bant wallahi ma ne ko ti ma ne sa ibra taxawal ibra taxaw ma ne ko tiin mbay wàcceel mu wàcc ma ne ko jëlal bant bii teg ko fële mu teg ko fa ma ne ko booy ñibbi diw dina am jëkkër te dina am doom ci sa kanam bant bi yee ko tere woon am jëkkër billaahi wal kitaabi tin mbay a ngi nii di ma dégg am na jëkkër bi am doom mu ngi fii ci kër gi de man du ma fen yooyu dama koy def pour won la ne Seydina Cheikh lu mu wax dëgg la nem taalibeem su mbon sii moo mën loolu waxuma la ak keneen waxuma la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te la tax ma def ko taalibe taalibe maam borom Touba laa àndal mu soxla ci bor ci ci mbokkam ok taalibe maam borom Touba àndal mu soxla ci mbokkam te dana ñëw ci fukk fukk yeeg ñeent yi Seydina Cheikh dig ñu du Tiijaan dana ci ñëw kon bu kenn dem nag naan mu ngay kiyeeteeg yooyu dama dafa dafa ñëw ci diggante bi rek te Xalifa Jàllo nettali na ko fii xadaratul juma ñëpp fekkee Tine mbay nettali na ko fii ñëpp fekkee looloo tax ma nettaliwaat ko ak jàngale ak wane ni li Seydina Cheikh wax fu wér la ko teg ñu ne ko waaw yow yaa ngi dund sañ nga ko mu teggil la bant bi yaa ngi dund sañ nga ko mu wëlbatil la daal la yaa ngi dundu sañ nga ko nga yónni ko ci marché bi waaye boo fi jógee nag mu ne na jàpp sama tariixa rek ma garanti ko ba la dugal ko àjjana ndax bu jàppee sama tariixa mu ngi may liggéeyal la mu waxoon yonent bi ne ko ma nekk buntu muccukaay amul am na baabu najaati bi mu waxoon yonent bi ne ko dama bëgg a nekk buntu muccukaay ba ku jëw ci man mucc boo waroon a dem jahannama sax ma fexe ba doo fa dem loolooy tariixa bi Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu taala an pour wan la mbiru ittey nit ñi ni mu ko itteelee woon ki yegg ci ittey nit ñi bay bëggatul gis doom buñ jur di ko sànniji bëggatul gis doom buñ jur di ko suul bëggatul gis doom buñ jur di ko jox wund yi ñu di ko lekk mooy muus yi kooku kooku social ñoru ko kooku doomu aadama ñoru ko kañ noonu mu daan régler ci problème sociaux yi rek la nekkoon bi muy dund mëntoon a gis ku am problème moom Seydina Cheikh bëggul gis ku am problème sociaux lu dul mu régler ko ba mu des tooñ ku tooñ rek la mëntoon a àndal kon moo lay won ne nitu sunna la woon ku tooñ rek la Seydina Cheikh mëntoon a protéger ñàkk a bañ tooñ nit yeggoon na ci bi ku toog tàllal sa tànk bu jubloo xibla mu ne la bu ko dindi ko na jublu neneen boo ko jubloo ci Moulay Idris mu ne la huwa sharifun bul toog mukk say tànk di nga di ko tàllal muy jubloo raw du mu lay Idris fa la respect yem jox sa moromi awliya yi respe fa la yem moo tax mu bokk ci sartu tariqa bi Seydina Cheikh ne boo jàppee sama tariqa bul ŋàññi benn waliyu wali yi yëpp na nga leen ormal bul xotti orma jëme ci ñoom kooku wax na la nga xas benn waliyu dafa ne boo jàppee sama tariqa mbooleem wali yi yëpp nanga leen ormaal bul xotti orma jëme ci ñoom kon waxu la xasal maam borom Touba waxu la xasal maam Limaamu Laay waxul la xasal maam Bu Kunta Njaasaan waxul la xasal Cheikh na sat bu dafa ne nanga leen ormaal ndax wali yi yàlla lañ boo xotti sa or booy xotti seen orma ñu teg la daan jeex na kon tiijaan boo gis mu ne tiijaan la woo jël làmmiñam bi boyal ko di ko teg ci deru awliyaa yi yu dul tiijaan di leen xas wala di leen ŋàññ toogal ba seet fu muy mujj Seydina Cheikh may ko taalibe moo tax Seydina Cheikh nee na sama chatu tarixa bi soo ko jàppee su dee mën nga jàng alxuraan bor bu set na nga jàng ñaari xisib foofu laay jeexale cinq minutes ama dese soo ko mënul jàng mu ne wàcc na la waaye léegi maa ci doon li ne te teg ko fu wér nag mooy fi li Serigne Cheikh Tidiane si wax ne niru sa bàyyi niru sa jamono ko gën ba niroo sa jamono niru sa bàyyi nag wàcc nga mënoo jàngal xoraan waaye mën ngaa déglu wa iza quri al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun alxuraan suñ borom nee na suñ koy jàng na nga déglu ki koy jàng ak yow mi koy déglu yéen a yem tiyaabo ca yàlla wa ansitu mu ne ngeen ceel leeral ñu ne ko lu tax mu ne laallakum turhamun ndax yàlla yërëm leen waaw yow mënoo jàng feroo ijji mënoo liir waaye taalal sa ordinateur yow mi am ordinateur yow mi ko amul amoo ngante ba tey de am nga connexion taalal sa portable sa connexion bi sarax ci yàlla donte yàlla du jël sarax hmm? maa kaana lil shurakaihim fala yasilu ila allah wa maa kaana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim yàlla ne liñ ma sedd seen xërëm yi rekk ko yegoo waaye liñ sédd seen xërëm yi moom laa yelloo man yàlla kon yow mii doxaan crédit bi nga jënd pour ndaw si waaye sédd ci yàlla nag tuuti nga jéglu ci alxuraan ah, mu baal ma mu baal ma mu baal ma waaw Eh, waaw yow miy doxaan jënd ligne ligne ak ak boobu ni ñu koy waxeeti paas nga jënd paas def ligne whatsapp fas yéene wax ko ba mu jeex takk waaye sarax ci yàlla nga dindi benn paasu alxuraan déglu ci benn trent minutes ngant amatul di ah, ah, am na booy dugg ci biir YouTube bi mu jox la léegi alxuraan. waaw nga déglu boog mënoo jàng déglul foofu laa ko teg ku mënul jàng mën a déglu boo mënul yëy goro defal ni saalum saalum banam defoon dem ba mënatu yëy goro bu joosee sax ah, bët yi neexatut pour mu wax ko docteur tere ko ko mu woo sët bi mu ci ñëw toog mu ne ko jënd doomu goro bu bu bu weex tàll raxas ba mu set jox ko ne ko yéyal bu yéyee bu ne kurit mu ne woy sama ndey noonu laa ko doon defee bi may am bëñ waaw kooku mënatul yéey waaye yéey ba neex na ko waaw alxuraan noonu la mel boo ko bëggee piir boo ko mënte boo boo xamul li muy wax sax boo koy déglu day neex waaw boo xamul sax li muy wax xamoo li muy firi mais déglu ko rek déglu bi rek day neex ci sa xol te da nga am tiyaabo wa isa foofu laa ko teg wa isa quri al quran fastami'u lahu wa ansitu laallakum turhamun sidina cheikh ne ngay jàng ñaari hizib par bés ñaari hizib par bés hizib mooy kaamil bi weer wi deex kaamil bi wàcc kon kii eh, teguwul ci sunna ki lay jàngaloo alxuraan est-ce que teguwul ci sunna yow mi ne alxuraan rek nga gëm bay jàng alxuraan fekk nga na Cheikh sant ko ay taalibeem ñoom beneen sartu tarixa bi mu ne la yow mii góor waxtu yu juróom yëpp dee ko jullee ca jàkka ja ku ko tegawul ci sunna yonent bi ne bu ngeen gisee kuy dem jàkka seede leen jullit la innama yaamuru masajid allahi loo wax ñu ne daif ma indil la aayee boobu innama yaamuru masajid allaahi man amana billaahi wal yawmil axir yàlla ne bu ngeen gisee kuy dem ca jàkka ja dëkk di baagante jàkka ja aller retour leen ne ku ma gëm la man yàlla bu dee jigéen nag na ko defee ca biir këram ca biir néegam ca chambre à coucher mu ëpp doole mu ñëw ci salle bi mu ëpp doole mu ñëw ci ëtt bi mu ëpp doole mu dem ca jàkka ji waaw ki la ne waxtu yi juróom dee ko jullee ca mbooloom jàkk ja fekk amoon ngant kooku tege na ci sunna wala tegewul ci sunna kookoo fay jàkk yi wala moo taal jàkk yi ci sartu tarixa bi la bokk de yow mii góor waxtu yi juróom day ko jullee ca mbooloom jàkka ja fekk amoo ngant wasifa ca mbooloom jàkka ja fekk amoo ngant xadaratul juma fekk amoon ngant ca mbooloom jàkka ja yépp dugg ci sharia ak sunna bu dee wasifa fiiha rijaalun laa tulhihim fa la dugg bu dee xadara rijaalun laa tulhihim fa la dugg a ah, xanaa julli ji moom kenn du ko tere bu innama yaamuru masajidallaahi man amana billaahi wal yawmil axir kon lépp lu tariqa bi santaane muy charte ci tariqa bi rek boo demee ci alquran fekk ko fa kon Seydina Cheikh ku tege woon ci charia la ku tege woon ci sunna la ma jeexalee ko ci baat benn baat bi wax rek wone na ne ñeme na boppam te ñeme ñemeloo na ñëpp xam nga lu tax dafa ne su ngeen déggee nit wax dara ne man Cheikh Sidi Ahmad Tidiane maa ko wax mu ne na ngeen ko peser ci misaanu charia charia su dëppoo ak charia maa ko wax mu ne su dëppoowul ak charia lu wax ja neex-neex ak gémmiñ gu mën a génne sànnil wax ja du man cheikh maa ko wax ma baamu ko xanaa kii ñeme na boppam kii wone na ne ci charia la tege kii wone na ne sunna lay appliqué dafa ni man Seydina Cheikh lu ngeen dégg ñu askanale ma ko ne maa ko wax na ngeen ko peser fi misanil charia ci balance su mu ne fa in waafaqa su fekkee ne dëppoo nag sharia mu ne fa xuzuuhu fa huwa minni ci man la jógee mu ne bu dëppoowul ak sharia ak gémmiñ gu ko mën a wax ak gémmiñ nga fu mën a bokk sànni leen ca xaj man Cheikhu Tidiane waxuma ko lii leer na kon kii wane na ni ci sharia ak sunna la tege damay layal tariqa bi de wane ne tariqa bi ci sharia la tege ci sunna la tege bu ñu kenn rey tegewul ci sharia tegewul ci sunna nii mu tegee ci sharia tegee ko ci sunna noonu la tariqa murit tegee ci sharia tegee ci sunna tariqa qadiriya noonu la tegee ci su sa sharia tegee ci sunna sa tariqa laayeen kadalika chazali kadalika xalwatiya kadalika mboolem turuq yëpp ci sharia ak sunna la tege amul benn tariqa bu tegewul ci sunna ak sharia kuy seet lu tegewul ci sunna ak sharia da ngay dem ca ndagara walle loolu de moom tegewul ci sharia tegewul ci sunna waaye ñun yii ñuy def ci sharia la tege ci sunna la tege kon nag ñu taxawan ni fii lii la Seydina Cheikh wax ci chartu tariqam incha allah bu ñu delsee samedi bii di ñëw ñu dugg nag ci euh, incha taala hmm? mu ne waaw kañ waaw kon dëgg la ndax bés bu kàddu ko wax bakkaar lay doon mhm. kon bàyyi leen xel istixfaar mhm. bàyyi leen xel salaatu ala nabi mhm. ndax yonent bi rekk ko wax ne bàyyi leen xelit ñaan sutura yaax na waaw kay sëriñ Cheikh la ma indil waxam li muy wax ni mujj jamono na ngeen bàyyi xel ñetti bàyyi leen istixfaar xel bàyyi leen salaatu ala nabi ndax di yegg foo xam ne loo wax rek bàkkaar la kon istixfaar farata la mu ne yonent bi rek moo ñu ci mën a génne ku ñu ci mën a génne ku dut moom wax nga dëgg kon kay gisal sëriñ Cheikh li ma doon wax yëpp pendant deux heures de temps tënk na ko ci ñetti wax waaw ci ñetti wax mu ne te Maodo ba dolli ca nag ne dee leen ñaan sutura waaw alaaj Cerno Seydou Nourou moom xaw ma nu mu koy waxee ci tukkuloo tukkuloo yàlla yàlla suureen waaw kañ man na buñ ko wax damay xalaat yàlla suureen jële waaw <laughs> ah, yàlla suureen bu noonu waaw kañ yàlla suureen sutura mooy lépp gis nga sutura moo gën alal mën nga am alal te doo am sutura waaye mën nga am sutura te doo am alal sutura mooy mooy loo soxla yàlla fajal la ko waaye dara newul ci sa poos nag waaye loo soxla rek yàlla fajal la ko waaye borom alal ji lu mu am ci am lu dul loolu loolay sutura lu soxla rëy rëy rëy yàlla indil la solution nga faj ko loolay sutura yàlla ñu ko yàlla defal waaw ah, loolu alaaji ma lay lu ko ëpp am na amul kon nag incha allah buñ ñëwaatee gannaaw wax nañ leen suratu tarixa bi wax nañ leen lenn boo gisee man bugguma dugg Seydina Cheikh jinne yi àndoon ak moom jël tarixa bi ñoo ëpp nit ñi ànd ak moom jël tarixa bi ndax gis nga sam harus bi bi mu duggee ci tarixa bi ñi mu am ñëpp la indaale in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu